te ki juróom-ñaari mbaam sëf la ren di jéggi ndax lan alali àdduna dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di fóonante rek la yam amul leneen mais fóonante dafa garaaw bu garaawee nag gém ñi ngi min dong la bëgg siiw du dem bàmmeel ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi abe woon léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dama reer xaw ma lii lan la nii mu ngi noonu suñu mbokk téléspectateurs yi ak suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy suivre à travers Solution TV et Walf TV la voix des sans voix ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di amati mbégte nag di kàtt ak yéen ci biir jotaay ñuy baaxoo def tous les dimanches à partir de 22h30 euh, sur Walf TV wala tous les vendredis à partir de 22h30 sur Solution TV tey nag dañ koy daal di doore ak suñu sujet d' actualité waaye duñ ca yem ñëw ak yéen ci feet ñëw ak ci kujje gi daal di randu ndànk ànd ak euh, euh, oustaz Souleymane Diaw ñu daal di ko tëjee li nga xam moo di masala ci question yi doy waar mu fas yéene ci andi ay leeral topp andi ñu bàkk bi ñu ñëwaat. léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii. génn leen ci yëpp xat-xat yoo xam ne jamono ji ñu ngi koy dund jàmm nag daal di dàq sax rek ci dëkk bi wala ci réew mi ah, Assane ñu ngi lay nuyu. waaw ah, sañseeti naa de gis nga ko nii de tey jii moom Basiirou Diouf rek ah, ah, bas daal gis nga fi ma génne te temps yi ma macha allah Sénégal ak korité geeg yooyu moo tax sax gi nga ko temps bi pour bi mu waroon a am pour kii amu ko waaw mais tax ñu ngi koy remercier bu baax di wax ni gars yi nañ ko woo mhm. si numéro téléphone boobu xaj na desee na tuuti tëjagut mais fii ak bi day tëj duutu jël mhm. benn ñaaw ndax bëggut nit ñëw mu naan la sama ñaaw dafa tardé. maa ngi lay sant nag baax di la gërëm. di sant oustaz euh, Souleymane jaw di ko gërëm di sant Moudou Diouf di ko gërëm yaakaar naa bi ñu duggee si koor geeg léegi ñu ngi doog a toog mm-hmm. di nuyu maam Bambi euh, di nuyu ñi nga xamante ñi ngi ñuy seetaan di gërëm ñi amee initiative bi di alaaji Sa Ndiogou Mbengue ak Sohibou waaye di gërëm Abdou Top di ñaan yàlla wéral loxoom mm-hmm. moo Abdoulaye Diallo ak sëñ Fallou Gumbale mi nekk si xarale gi mm-hmm. di nuyu baax soxna Momi Kebe di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te naka noonu sëriñ Abdou Samad Mbacke ak sëriñ Moussa Nawel sëriñ Amsa mu sëriñ Abdou Lahat ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp suñu borom defal leen tawféex kontaan nañ lool daal si émission bi incha allahu rabbi dana am solo lool daal si biir waxtaan bu soobee yàlla. mu ngi noonu waaye nag dañuy daal di jaale sénégalais yëpp ah, ki nga xam ne moom moo di Mamadou Yatassay hmm. daal di génn àddina ni ki démb di ñaan suñu borom rek xale ko àjjana jégal ko ay bàkkaaram te yéexee ñu ñu ngi leen nuyu baax a baax Euh, alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina wa moolana muhammad wa ala alihi wa sahbi wasallama taslima soxna euh, Didi ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa plateau bi yëpp tabaarakallaahu Haaj Modou Diouf Mouhamed ñu ngi koy ziar bu baax Baye Assane Mesre ñu nuyu la yow tam ziar ñaan yàlla mu dolli tawfiq yi nuyu soxna baam bi mën naa mi ci yoon bi tabaarakallaa mu di nuyu ko ziar ko euh, di rek giital nuyoo ci xalif général des Tidiane muy sëriñ Babacar Sy Mansour mm. euh, di ñaan sunu borom yàlla guddal fanam yàlla aar ko sàmm ko nuyu baax Serigne Mountakha Bassirou Mbacké euh, yàlla aar ko sàmm ko nuyu xulafaaw yi ci réew mi yëpp tabaarakallaahu nuyu Cheikh na Cheikh naama Serigne Habib Guèye muqaddamu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji ñu nuyu ko bu baax ziar ko bu baax waaw ku lay ku lay bëggee Assane <laughs> sëñ Habib ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax ak sëñ Basir waaye tam tabaarakallaahu soxna Didi mhm. noonu lañu ñu amee tiis bu rëy nag mhm. boo xam ne dafa dal suñu kaw mhm. dal ci njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick radiallahu anhu gépp mooy caatu Cheikh Alhaaji Abdul Aziz Dabaax muy maam Ousmane si dafa génn àdduna démb tabaarakallah ñuy ñaan yal na yàlla yeesal yërmandeem yal na yàlla xare ko aljana asan ku baax génn na àdduna ku yiw koo xam ne tabaarakallaahu diine rek moo ko ñoroon ndeysaan fa papaam tegoon tànkam fa la ko teg ñu ñaan yàlla na yàlla kawel aljanaam yàlla yërëm ko te xare ko aljana waaye soxna Didi mhm. nuyu nag euh, soxna Adja Anta Bopp nekk ci Pout Baye Assane mhm. lii ma sol nii nii nii nii mhm. Adja Anta Bopp la ajaratu anta bopp ajaratu anta bopp soppee alxuraan. sopp nabil Mustafa moo tax mu def ko. waaw moo tax mu def ko tabarkalla asal wallaay yonent bi moo tax mu def ko. moo tax mu def ko de anta bopp ñu ngi ñaan yàlla mu guddal fanam. jërëjëf yàlla aar ko san ko Adja Kayre suñu yaay ju baax jooju. suñu yaay Adja Fat Diop tabarakallaahu suñu magu bopp nag nekk ca cees jàmm gën di Njaay Ramata maa ngi koy nuyu baax di ko ziyaara waaye nag di nuyu association groupe bëgg sa jëkkër Assane. suba ñoom laay defal conférence association groupe bëgg sa jëkkër nekk ca jàmm gën ah, ah di leen ñaanal ñoom di ko teg ci loxo présidente ba rek muy soxna Mami Sène su ma ko nuyoo mu yóbbaale mboolem rek ca ne sama soxna sax mu ngi ci biir association ba tabaarkalla kon nag tabaarkalla loolu moo nekkoon nuyoo bi soxna di di tey nuroo bi watina yànj na Alaaji Moodu ñu ngi lay nuyu di maa ngi lay fay di wax ne namoon naa la Diouf di nuyu waa Gandiaye ak waa Kaolack gi nga xam ne man a yow foofu la ñu cosaanoo di nuyu sama xarit sa Souleymane Diaw di nuyu waa Thiès di nuyu grand Doudou bu baax a baax di nuyu njaboot gépp di nuyu Baye Assane Mesere sama xarit bu baax bi sama baay Fall bi di nuyu waa seen waa Saam gépp ca Touba di nuyu mbokk sénégalais ñi seetaan yëpp di wax ne desewaat nañ jomet di leen baalu àq ci koor gi ndax bi passé ñëwuma woon waaw di leen baalu àq di leen baalu àq di wax di leen ñaanal yàlla yàlla bu nekk suñ koor gu mujj te yal na yàlla nangu lépp luñ ko ci jaamu di wax ne dellusiwaat nañ tey ci Jomet mhm. waaw affaire nag xam naa ne gëj naa rëb ma maa jigéen waroon naa ñëw rek kon nekk oustaz affaire bi comme ça ma toog noppalu ah dégg naa dégg naa xaw naa la dégg naa xaw ko mujj yërëm sax voilà di nuyu ah. téléspectateur di nuyu ñi nga xam ne fanta bi nga xam ne woo na ma di di ma massawu te mu nekk euh, bitim réew di sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu ñëpp ñuy seetaan te ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax muy loolu kon na topp andi ñu tempo bi rek ñu daal di commencé waxtaan bi léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii ku may gindi waat voilà dañ koy dooree rek ak li nga xam ne moo di clashante bi am Assane ci diggante opposants yi nga xam ne ñoo nekk candidat yi mu nekk loo xam ne. Euh, am na président Ousmane Sonko ñu Anta élément bi. libérer Bassirou Diomaye Faye mais saluer seen libération en tant que sénégalaise wante dafa am lu ma jaaxal dama commencé ànd ak tiitaange damay wax dëgg rek dama commencé jaaxle ndaxte nag buñ nee suñu monnaie bi le franc CFA dinañ ko jékki-jékki rek tëb rek soppi ko maa ngi naan ah Bassirou Diomaye Faye li ngay wax nii faaw nga uti xam-xam kenn du tëb di jël exemple mais da ngay jékki-jékki di dindi CFA pour fi créer une nouvelle monnaie de cette façon là ça ne se fait pas comme ça. moo tax dañ ne lan ndànk ndànk ndànk mooy jàpp golo ca ñaay ba am na loo xamante ne boo koy wax di jël ay engagement surtout dans une campagne présidentielle na la wóor ne yaa ngi jël ay promesses yoo mën a respecter. moi Ousmane mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Ousmane mais qui est Ousmane finalement mais qui est Sonko finalement mais qui est Bassirou finalement ñu ne ñu bëgg ñu jox leen réew mi comprendre ma tout on est perturbé on est perturbé xam ngeen yéen lu wóor ba wóor xam ngeen fii lu wóor ba wóor waaye Anta Babacar mooy Anta Babacar. troisième catégorie bi xam nga ñooñu mooy ñi nekkoon fii régime troisième mooy ñi bëgg changement bëgg def rupture. mais ñu bëgg a def rupture ci seen biir dafa am ñaar dafa am ñoo xam dañu bare riir mais mënuñu yor tous comme ki ay violence lañ fiy wax ay wax yoo xam ne yi suñu waxee lii tey suba ñu wax lële. ñooñu c' est un risque de leur donner le pays c' est des aventuriers. pare guñu dañu war a xaar. c' est ça la réalité. comme nga bëgg nga bañ ko non. mën nga am doole politiquement ba pare pare woo pour diriger réew. Hmm. mais dañuy waxante dëgg. c'est la réalité le combat. je suis d'accord mais c'est ça la réalité. Sénégal fii mu toll war a jóge pays boo xam ne bii dafa pauvre pauvre je veux dire. ci politique bi ñu ko defaree. ah pauvre endetté. Mhm. nga war a jóge foofu nekk ëpp pétrolier. nga jël ko teg ko ci loxo yoo xam ne dañuy jàng liggéey ah man de ko def. muy noonu Assane dégg nga li nga xam ne moom la Anta Babacar Ngom wax nee na finalement moom dafa jaaxle que naan Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko à la fin qui est ay kàddoom mu mel ni rek euh, fan yi dañ koy faral di gis moom li muy mooy opposant yi te ñoom am na solo euh, xam nga attaquante bi mhm. lu war a mën a nekk la mhm. te ku demee ni Ousmane Sonko moo leen ubbil bunt yi. ndax bi mu taxawee mu ni président Macky Sall kat moo doonoon suñu adversaire moo tax ñu doon wax ak moom mais léegi bokkatut comme comme bokkatut moom booleetu ko si. Mhm. léegi Amadou Ba mooy suñu adversaire moo tax ñu koy tiire ay bal. Mhm. kon jàpp na ni kat adversaire sa adversaire war ngaa mën a waxante waxanteeg moom li nga koy wax ak moom mu lay wax kon lu normal la loo xamante ni politiciens yi war nañ koy man di waxante ñoom si seen biir. moo tax euh, ñu koy waxante ku demee ne Anta Babacar Ngom bu ñëwee wax si Basirou Diomaye fay ñoom keneen ñëw wax fii keneen ñëw wax fii loolu ama ama am solo la si biir campagne bi léegi nag kan moo siy gagné mooy ki ñuy tiire jëmale ko kooku rek moo siy gagné ndax tey jii am na si ñoo xamante ni tuddaguñu leen te dañ leen waroon di tudd léeg-léeg kenn ñëw dal si kaw Déthié Fall Déthié Fall dal si kawam kenn ñëw dal si kaw nu mu tuddati sax ki nekk Linguère. aali nguy aali nguy daal si kawam léeg am ku ñëw daal si sëriñ buub sëriñ buub daal si kawam mais yooyu amut ñoom dañuy ñëw di tiire si kaw kenn xaj na dañ koy def vedette wala ñu yaakaar ne mooy roi des arènes wala ñu ñëw sax daal si Amadou Ba mi nga xamante ni moom moo ubbi xam nga Amadou Ba mooy moo fi représente président Macky Sall léegi bu ñëpp ñëwoon di ko tiire ay bal sax dañuy d'accord waaw waaye daal ñi si des noonu ñuy tiirante ay bal euh, lu lu am solo la man de ànd naa ci sànnante xeer bi nga xamante ni ñu ngi koy sànnante xeer ñoom politiciens yi ñoom seen biir léegi nag ñi seen yoon nekkut ak mini ay militants wala ñoo xamante ni dañoo ñëw dem coalition nañ ci maandu ab ab candidat bu ñëw dal ci kaw ab candidat ne ko candidat bu tontul boppam mais ku dul bu mu tontu voilà. muy loolu Oustaz ndax nga déggee kàddu yi nga xam ne Assane wax na ko ci li jëm ji euh, Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom lu mu def. nee na kan mooy en fait kan mooy Sonko parce que li muy li muy dégg mooy Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko li mu gëm mooy Anta Babacar mooy Anta Babacar Ngom. waaw euh, Anta loolu mu wax euh, am na ci sañ bu baax mooy li mu ni Anta Babacar mooy Anta Babacar loolu yaakaar naa kenn du ko ci mere kenn mënu ko mere man maay Souleymane Diaw Didi mooy Didi Baye Assane mooy Baye Assane loolu amul benn problème bu ci ne liñ ñu war a leeral kay. mooy Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko dafa nekk cadre boo xamante ni naa ni slogan la sax ci dëkk bi léegi boo nee Sonko mooy Jomaay ñi ni Jomaay mooy Sonko ba am na benn journaliste sax bu ci laajoon defe naa am benn seen benn El Malick defe naa la suma ma juumul su juumul la ko laaj mu wax Sonko ba tey ne ko Sonko mooy Jomaay liñ ci xam ci loolu boog déggin bi ma ci am asan mooy ñoom ñaar ñoo bokk benn bopp bokk fu ñuy xalaatee nu ñuy xalaateeg nu ñu bëgg yoree Sénégal bu dee côté boobu la loolu mën na nekk Sonko mooy jomaay bu dee ñoo bokk programme ñoo bokk li ñuy xalaat ñoo bokk fu ñu bëgg a jëmale Sénégal il faut ñu comprendre loolu war naa mën a doon lu mën a nekk la su boobaa nag ànd liggéey moo ciy am rek ànd liggéey ñoom ñaar bu fekkee dañoo bëgg tabax Sénégal ndax Sénégal jamono bi ñu toll yow yow yow Didi nekkul Anta Babacar Ngom nekkul Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko nekkul Déthié Fall mooy Paté wala Samba problème mu Sénégal nañu ko defar. ñun foofu lañ toll nañ defar réew bi ñoom ñi woote ne ay candidat lañu nañu génnee seen xam-xam li nga xamante ni ak kum ci mën a doon beneen bi am na loo xam ne Assane war nañ cee taxaw bu fekkente ni ñoom ñii xëccoo nañu xëccoo nañu ba ki gañe gañe même opposition bi dañoo war a defar Sénégal man Moodu loolu laa gis bu ñu bëggee Sénégal defaru nekkul ni après élection yi def nañu campagne candidat bu nekk wane nga gañe nañu ma après damay dem toogi jàpp sama ñaambur kon Sénégal ñoru la li ma gëm mooy même bu fekkente ni campagne bi jeex na ba ñu élire le 24 mars ci kàttanu yàlla yàlla dogal ni diw moo giitu wala diw moo gañe ku mu ci mën a doon ñoom warul tax ñu replier wu delluwaat ginnaaw ne dañuy xaaraat ay élection pour wane suñ bopp ci Sénégal lii tax Sénégal avancé mooy ñoom ñëpp ku mu ci mën a doon waneel sa njàmbaar ku mu ci mën a doon waneel ni Sénégal dama koo bëgg yemale ma ko ci ay campagne rek bu campagne bi jeexee nga dem waat nelaw bu élection jub si waatee ngay ni say million ni demee ba laaj réew réew mi bu ñu amee fulla ak fayda ñoom it ni duñ la ko jox Anta Babacar nag loolu mu wax waxu politicien la ci seen biir sànnante traag la rek traag la yoo xamante ni séq nañ ko ci pareetu campagne bi laa jàpp gëm naa ni bu campagne passé ama duñ jekkatul lool jomaay mooy Sonko nag ak sonk mooy jomaay dafa jar tey jii tey jii comme la ñuy tëj campagne bi dafa jar mu leer so yow muudu lan la ñu bëgg a wax ah mais lan lan la ñu bëgg a wax ñoom ñaar lan mooy jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay maanaam sax lu lu lu saf ci làmmiñu nit ñi la moo tax man la bu fekkee ñoo bokk benn mémoire benn bopp bu ñuy xalaatee ak Sénégal gi ñu bëgg a tabax loolu moom amul problème mën naa nekk léegi nag ñoom bokk na ci seen li ñuy wër ci seen campagne yi di ko def tey jii nii balaa ñuy tëdd waroon naa leer ci bopp Sénégalais yi lan mooy Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko ñi ànd ak Sonko wala ñun ñi ànd ak Sonko wala ku mën a doon te ànd ak Sonko ñu xam exact lan lañ bëgg ko wax soxna Didi. waaw euh, Didi loo ma laaj. ci kaw kii bi parce que sànq euh, ki nga xam moo di euh, kii wax na nee na nee na waaw Sonko ba Diomaye kii nee na sànq euh, Diomaye dafa wax ne dafa bëgg a changer li nga xam moo di CFA bi am na kàddu yi nga xam ne kii yëkkati na ko yow naka nga jàngatee loolu le fait que mu war a campagne ñëw ne dama bëgg a tey su ma fàlloo li nga xam moo di CFA bi ñu bëri ñu ngi koy critiquer waaw candidat bi day lim li mu mën a def mooy wut programme ñëw won ko Sénégalais yi buñ ci adhéré votel ko loolu la ku ci nekk ci ñoom am na programme programme bi ngay am moom ngay wax sénégalais yi jugé xam nga mbir mi ni mu war a demee mooy bu njëkkoon dañ daan gis opposition ak pouvoir ñooy jongante mais élection bi dafa mel dañoo gis opposition buy jongante ci ay seen biir man loolu nag lu bees la ci man man damaa comprendre ndax man euh, ñoom ñëpp ki yor li ñu soxla kooku la ñu war a attaqué ji maa pas ki koy wutandoo ak ñoom. waaw déedéet mais kooku dafa am ku ko représenté. Mm-hmm. kooku dafa am koo xam ne mooy candidat am Macky Sall Amadou Ba la ñu wax ne mooy candidat am. Mm-hmm. ba fi ñu toll nii waxuñ keneen. kon damaa jàpp ne ñoom bu ñu bëggee dañoo war a wax ak ki nga xam ne moom moo yore te bañ a topp kii wuti mm-hmm. surtout que yow ki ngay wut ki nga àndal di wuti moom waxu la dara moom ki yor lay waxal léegi nag mbir mi dafa jëm. fi xel jëm moom mooy nit ñi bu ñu ragal wax bi ki jiitu rek la ñuy clash wax dëgg fa yàlla ki man moom vraiment du ma dem ci yoon di xool ki nekk ci ginnaaw moom di ko clash ndax ko romb naa ko pare Anta nag man li mu def dama ko comprendre xam nga comprendre ma ko mm-hmm. moom Anta Ngom la tudd lu ci andi Babacar ci turu ci turam la tudd mm-hmm. lu tax mu ne Anta Babacar Ngom dàkkantal la ku ko dàkkantalee papaam parce que dafa xam ne bu waxee moom kese kenn du ko xam dëgg la dëgg. est-ce que noonu la tudd Modou. waaw de jàppoon loolu tudd damay wax rek. Hmm. bu nekkee ci këyitam la nekk. waaw ñu ne ci këyitam la nekk. waaw wante même bu nekkee ci këyitam turu baayam la. waaw Anta Babacar Ngom. waaw léegi moom nan la mën a nangulee ñu ne Anta Babacar Ngom. ba pare Diomaye mooy Sonko bu ko posé problème. yow faroo moom. ah du ma faree. Ah, wala nga farak Anta yow. damay laaj ah, non damay laaj ba xam ne da ngaa farak Anta. non de faru ma Anta défendre nga ne moom mooy Anta Babacar. te pourtant waxuma la da ngaa farak Anta. non maanaam wax naa sànq. Anta même bu tuddee Anta Babacar Ngom turu baayam la toftal ci turam. waaw looloy kinaaya bi. waaw kay bu ñu ne woon Anta Ngom bu ñu ne woon Anta Ngom. kenn du ko xam waaw. tey bu ñu jëlee ñu ne Anta Ngom mooy campagne kenn du ko xam Babacar Ngom lañ xam. Mhm. ndax moo tabax sédiment dama bëgg loolu mu leer Babacar Ngom lañ Sénégalais yi xam. Anta man bi mu duggee ci campagne bi laa ko xam. bu génnoon ne man maay Anta Ngom damay laajte ji kan mën naa laajte ji kan mais moom moo ñëw jël emblème baayam teg ci wetam. waaye léegi mën nañ tere Diomaye mu jël emblème leaderam teg ci wetam. déedéet waaw kon lu tax lu fu ko problème bi posé moom lan mooy problème am ci Sonko mooy Diomaye wala Diomaye mooy Sonko lan moo ci problème. c'est la même keneen bu ko laajte woon ma xam ne comprendre mais Anta dafa utiliser même mbir même même procédé bi ba pare bu ko a naka mu ko mu lëñ mu lëj ci noppam ci keneen kon moom dafa lëj ci moom ci boppam ci Anta Babacar Ngom mhm. Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko mhm. slogan la Sonko moo nekkoon candidat wu Pastef bi bëggoon ñu bëggoon mu nekk seen candidat mhm. Sonko dem na ba jàllul ñu ne mu ne leen Jomaay laa wóolu Jomaay mii ma leen woon de man ak moom benn la ñu loolu moo andi Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. dafa jar a leeral nag. ak ñoom leer na kay ku ku ku ku. man bokkuma Pastef xaaral. man bokkuma ci xaaral rek man li tax mu leer ci sama bopp. mooy que dañ ko wax ñoom man ma dégg ko man li créé wu ko. waaw mii xam na la loolu moo am. Mhm. Sonko mooy Jomaay. mooy Sonko dañoo bëgg wax ne boo choisiree Jomaay choisir nga Sonko. boo choisiree Sonko choisir nga Jomaay. ni ko leeralee nii dafa baax. waaw noonu nag la loolu nag mooy. loolu warul nekk oustaz loolu warul nekk problème ci boppu Anta Babacar Ngom. bu ñu waxante dëgg dong na ah, léegi nag Anta man li may Anta li ma koy conseil mooy malgré campagne malheureusement campagne bi jeex na mhm. Anta bu mu raté cible mhm. Anta nguur lay wuti ñi yor nguur na dem wax ak ñoom te ba ki koy wuti comme moom. Mhm. léegi nag dafa am nit ñi c'est-à-dire que man xaw ma ñenn ñoo leen di conseil en communication dama ciy ñëw ñaar dama am ñoo xam ne anda ñu koy conseil en politique xamuñu dara wax dëgg fa yàlla. anta waaw xaaral damay wax. anta anta anta mënoon na dóor feneen anta xale la anta xale la maa ko mag. Mhm. mënoon ñëw incarner espoir mais bu mu ñëw di def politique politicienne lii politique politicienne la gis nga waa waa ñoom Sonko bi ñu génne ñoom dañoo xam seen cible Amadou bala mhm. bu nekkoon fi tey encore di wax naan Macky Sall Macky Sall damay naan ñii comprendre ñu ñuy muy Amadou Ba. yaa ngi dégg baax li ma lay mhm. li ngay construire ak li ngay déconstruire boo bañee di tardé ci ay débat de nekkee nangu na mooy que ne dafa gis ne Jomaay ma nga ca kanam mu nekkoon naa clash Jomaay mais bu nekkoon Jomaay dafa nekk ci pouvoir bi ci la mbir mi di gën a jàll que Jomaay bi ne parce que Jomaay bi nekk ci opposition bi la di comme moom. loolu da koy da koy affaiblir waaw muy benn. beneen bi ñi conseillé Amadou Ba mu dem TFM wax fa ci affaire jabaram ni ñu ko conseillé baaxul gis nga politique ci ay ci ay ci ay décision yu ndaw lay affaire yi di basculer. Uh-huh. Amadou Ba bu nekkee ne moom dafa yor benn jabar na taxaw clairement mu ne benn jabar laa yore bu fekkee dafa am keneen ku génne jabaram la te du jabaram taxaw carrément mu ne diw euh, du sama jabar waaye mënoo ñëw nga taxaw position boobu nga xam ne moo gën a faible mënoo a laaj nit seen carte. non attention moom waxaale rek waaw mu ne sama vie privée la du ma ci tontu non déggoo li ma la de man li ma wax dafa leer dama ne mun na ne sama vie privée la du ci tontu <laughs> kan moo ko ci mën a dara waa léegi ndaw si fi génn def événement ne jabaram la léegi dañuy bàyyi noonu léegi lu mu nii nii nii nii nii non non non waa rek Oustaz xaaral rek Amadou Ba bu ko neexee bu ko bu ñu waxante dëgg rek problème waa léegi léegi waa léegi waa léegi oustaz problème privé la na ne sama vie privée la ma ci tontu yaa ngi dégg wala mu ne man benn jabar dong la am aw ma beneen jabar waaye diw sama jabar la seen ñi quarante ans foofu laa yem a ah non waaye dégg waaw mais bu ñu ko laajee ndax oustaz ñun waxaar ma nan la waxaar diri baax na diri baax na xaar oustaz non baax na baax na xaaral oustaz man mu am wuy ma mu am cinq jabar du sama problème man waxuma loolu ay jullit lañu am war a war a jël suñu responsabilité ku ne am waa mais na ko assumer man loolu rek laa wax. waaw mais bu mais mais déedéet ñun mënoo bëgg a laaj suñu réew mënoo assumer say ñaari jabat bëgg ñu laaj Sénégal. déedéet bu boole loo xam ne bokkul. lan non attendez xaaral ma wax la. bu ko neexee bañ cee wax. xaaral ma wax la dama ne. di man comprendre leen ba tey de. waaw Amadou Ba ne du ci tontu. Mhm. ma respecté ne du ci tontu. mais bu tontu yow am nga. déet amu ci problème. non xaar déedéet xaar rek didi didi ki nga xam ne dañoo dañ ko bëgg a jël suñu réew ñu jox ko ko. Mhm. dañ fa nekk koo xam ne dafay nekk dañu am moon ak ñun ak ñoom langage de vérité man aw ma problème ci Amadou Ba man Amadou Ba mu xamante wuñu aw ma problème mu am dix jabar aw ma problème boobu noonu il faut il faut nga comprendre li ma bëgg a wax mais xam nga problème laa am Amadou Ba bu fekkee ne benn jabar la yore. buñ ko laajee ne ne man benn jabar laa am. mais laaj ñu ko loolu. asan yi tamit duñ asan yi tamit da ko ne daañu naan sa ñaareel bi naan. waaw wax ko loolu. wax ko loolu da ko ne. Hmm. malal da ko malal question pièce sax la ko andil. Hmm. ndax constitution reconnaître benn jabar ñaari jabar dañ ne même bu fekkee da nga am plusieurs jabar sa premier jabar bu njëkk mooy première dame. Hmm. loolu c'est déjà réglé malal xam na li mu koy laaj. Amadou moo moo xamul li muy tontu man loolu laa wax. mais Amadou li mu ko tontu dafa andi mais moo tax ni am ni dafa andi dafa andi fulu ci bopp ñi. mais nee na kan moo la wax du loolu laaj bi xam nga man Assane dama ñëw ne la Assane dama ñëw ne la Assane ñaari jabar nga yor nga naan ma kan moo la wax loolu. Assane est-ce que ñaari jabar nga am loo may tontu. mais d'accord bu ko waxoon loolu. waaw bu ko waxoon loolu non bu ko waxoon ne ko. xam nga man yàgg naa ci question dama bëggoon jaar ak jàll. Amadou bu ko waxoon Amadou bu ko waxoon ne sama vie privée la du ma ci tontu. amul problème damay accepter ne vie privée waxaara rek su ko waxoon ne ko pourquoi nga laaj loolu sax waroo ma ko laaj ma xam ne Amadou question bi. dérangé waaw dafa naa rek mais bi mu ko ne ko dafa yamu ca. daf ko ne man sama benn sama jabar bi may yore mi ngi tudd nangam sëy nañu nangami at foofu laay yem déedéet du yem foofu. waa léegi tey buñ ko falee ñu ne Amadou Ba ñaari jabar la am lu muy wax sénégalais. mu génn bu boobaa. déedéet kon kon kon dafa fen sénégalais yi ñu baal ma ci kàddu bi. kon dafa sénégalais lu amul. a noppi ko bokk. mbiri jabar yi question bi jullit la ñu nekk li suñu diina may ñu ñu am ñeenti jabar

mais léegi loolu daa aay. waaw léegi Amadou Ba non ma Sega Assane. xaaral ma man ma assumé sama ñaar ñaar ñaar jabar mais déggul ma yéen Sega Assane li nga def ni diabolisation xamul tax. non non man dama aw ma problème Amadou Ba am ñaari jabar. waaw moom ma leeralal ko bopp waaw dama lànk rek man ma problème ci Amadou Ba am ñaari am problème ci Amadou Ba a ñaari damay ñëw non parce que foofu la non dama jàngat loolu xaaral waa déedéet man la dafa maa jàngat loo coow waxante yi. am ci biir waaw mais ci biir ka la. fee bu am la Assane. mais sànnante xeer yi la wax. après yow nga dem sa vie privée Amadou Ba sa ay jabaram. dalaa waroon na laaj la laajoon si jabar. xam nga man man mbir jabar Amadou Ba. man am na lu ma ci xam. waaw. yaa ngi dégg ma la xaar rek. mais man li may jàngat mooy li ñu wax ci plateau télévision. Hmm. Amadou Ba candidat la te favori la ci élection bi. Hmm. mais élément boobu àggugu sax. ci lan la àggagul si Anta Babacar la laaj sànni xeer sànni xeer Sonko ak ñoom Sonko monnaie bi ñuy sensé waxoo parce que parce que parce que ni ma waxee ci Anta Babacar Ngom jàll. Hmm. su ngeen ma bàyyi wax ci Amadou Ba jàll. dem fi ma bëgg a dem déedéet mais dafa mel ni. Amadou Ba moo leen non non moo leen tax ngeen taxaw non non non xaaral xaaral xaaral dafa mel ni yow Assane yow Assane ak oustaz Souleymane Diaw li ma wax ci jabaru Amadou Ba bi dafa leen a déranger. war ngeen laaj ñu ñu. wuy ma waxtaan buñ ma laajee sama temps de parole. si wax loolu ngay def. chaque am si wax si Amadou ko ci naa si wax mais bokku si. léegi dafa laaj monnaie bi la la laaj monnaie bi. waaw léegi. ak Anta Babacar Ngom leeral ko si xam nga loolu mu jeex rek. yëpp ko masala. non daal. parce que ci dëgg rek daa faral am dafa faral euh, far moom far sax amu si non non faralu ko ma kii faralu faralu eh, ma waxee ñëpp laaj ba xam ne loolu nga laaj wala laajoo. suñu xoolee muy wax si ay jabar te jabar constitution ay wut nga takk sa ñeenti jabar bu la neexee. waaw waaw nag benn ngi nii am na ñaari jabar ñëpp xam nañ ko. léegi moom ah, keneen ak keneen am na ful la koo xam ne bu kenn ko jabar ah Sonko moom bu tàkkoon ni ñaari jabaram lay yor. ko lay def. non non xaar rek. laaj bi di. man damaa dégg rek nga kontaan sa jabar kii mooy laaj. mais mu mu da maa kar ma si yow laa ci diglu yow sa xam-xam laa man daal li may wax daal mooy mais nu nga wësee dugg nga dugg si ay jabar ak ñu wër si monnaie bi nga leeral ñu dama ne Anta li mu def. ci Diomaye mooy Sonko ak question bi ci posé erreur de communication. Amadou Ba li mu def TFM erreur de communication la. yow yaa dugg foofu bu ko yaatal man yéen bëgguma foon yaatal. non man man kay man damaa toog di la seetaan de. seetaan maa toog di la seetaan ba nga ba nga dugg si. léegi nag léegi nag léegi nag xam nga. mbiru mbiru jabaru Amadou Ba moom Amadou Ba moo ko mën a leeral. non ñun dañ saa soxlawul lu leer ñun la suñu yoon si ay jabaram. dañuy fal président. war a xam ki ñu fal kan il faut ñu xam. non non ay wala joxo baam bi noonu léegi joxo baam man ma noppi parce que man vraiment. ay soxna ay ah, keneen. wuy ma yow wax ma jigéen li mu doon def keroog xam nga nekkam lu métti la. yaa ma ah, koy def non non man soxna yi laa dama suñu yoon nekku si ay affaire soxna. waa léegi affaire président la ñuy tànn léegi yow xam nga foog nga comprendre nañ am ay fukki soxna ak ñaar fukki soxna ci wàllu mona gi waa léegi ma ñëw ci mona bi laa bëgg leeral mona bi laa bëgg wax ci ba mu ñëw ci xaalis mais ay soxna kay laaj ñu ko mona bi leeral ko xam nga xam nga affaire mona lu compliqué la du ma économiste mais ba ma wax li ma ci xam rek xam nga Bassirou bu émettre l'idée de d'avoir une monnaie projet la maanaam nekkul loo xam ne day ñëw rek ñu ne non CFA bi moom dekkatul dara nañ jël monnaie bu bees non non du noonu mais li wërtu wër mooy li wërtu wër mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, Didi amul benn réew buy développé te sama bopp loolu leer naññ la amul benn réew buy développé amuloo sa monnaie bopp ndax xam nga lu tax franc CFA bi dafa am ñu ko bokkal yaa dégg maîtriser wu ñu maanaam garanti yi yeneen ak yeneen yépp daal ci ay loxo yi ñeneen la nekk. Mhm. ñun maanaam mënuñu manipuler suñu suñu xaalis te comme Sénégal dañu am pétrole am gaz te bu ñu demee ba ci kanam ñun mën nañu dicter suñu loi ci àdduna bi maanaam mën nañu wax suñu kàddu ci àdduna bi. mun nañ dem ba décider ne kuy jëndati suñu pétrole comme ni ko Poutine defee kuy jëndati suñu pétrole. Ah. da nga koy jënd xaalisu Sénégal. mais loolu il faut ñu am ne mais nekkul loo xam ne dafay ñëw tey rek. mu sotti suba ñu ne non monnaie sàngam la non non processus la dañoo bokk ci CFA. ñu am ci communauté bu ñu bokk. communauté boobu noonu ñu ngi créé ñu ngi créé monnaie bu bees bu tudd ECO. ECO ak CFA daanaka tur bu changé la mais même même même procédé la. léegi bu fekkee ne tey mun nañu dem a dem a dem ba écho boobu noonu tey méngoo ak li nga xam ne moom la moom la candidat bi bëgg mais dañ ciy dem mais CFA bi ñu yor nit ñi nga xam ne moom la ñu yor depuis tey français yi bu leen neexul suba suba suba suba ñu imposer dévaluation CFA bi gën a daanu ndax maîtriser wuñ ko léegi nag dëkk yi nga xam ne dañoo def développé ci Afrique que ce soit Nigéria que soit Ghana que soit keneen seen monnaie bopp la ñu yore même Mauritanie gii bopp la ñu yore gis nga Mauritanie dañu yor mboq moom sa xaalis boobu possibilité mi lay may ak moom ya xaalis boobu nu mu utee. Mm-hmm. moo tax dañoo dem di dem di dem ba ci kanam rek ñu dindi benn zéro ci seen chiffre. seen monnaie. xam loolu mooy lan. loolu mooy pour gën a valoriser monnaie bi. ñu dem ba si yàgg rek 1000 francs nekk 100 francs. Mm-hmm. def nii. pourtant li nga doon jëndee 1000 francs 100 francs nga koy jëndee mais boo nee 1000 francs ne 100 francs dégg nga valeur bi. Mm-hmm. loolu il faut nga mën ko il faut am sa monnaie bopp. léegi comme ñun am nañ pétrole am gaz comme ni waxoon léegi. mun nañ dem ba ci kanam ñu ne léegi kuy jëndati suñu pétrole ñun suñu xaalis nga koy jëndee mais bon il faut ñu am suñu xaalisu bopp il faut ñu am suñu xaalisu bopp parce que ñun tey jii nii suñu jënd dara dañ koy jënd en dollar wala jënd ko en euro dollar ak euro bi ñoo ko yore di ko def nu mu leen neexee Amérique bu ko neexee mu yéegal dollar bi su ko arrangé su ko neexee mu wàcce ko nu mu ko arrangé mais écoutez bu nekkee yow sa monnaie nag dafa taxaw fi mu taxaw yow tey jii mun ngay jënd table bi di ko jënd en dollar table jar téeméer nga bëgg ko jënd soo mu jar 1000 francs parce que yow maîtriser woo sa monnaie léegi nag loolu tax na débat bi war nañ ko poser mais nit ñi li war a xam mooy nekkul Diomaye day ñëw rek suba rek ñëpp suñu CFA yi jóg ko sànni ko ci ba ñu la léegi dafa am diabolisation ci ci élection ni muy demee c'est et puis normal bu nit waxee dara da koy jéem a déconstruire pour gën a dëggal sa bopp mais nag quand même euh, li ma gis ci ay erreur gars yi bàyyi ñu ma dem comme jabaru Amadou Baye dana leen déranger xëy na ñoom foofu moom moo amoon biri na jox bam bi mu dem sur le table après ñëw ci jabar yi ba xam ci wax lu sori <laughs> Assane trois personnes ñoo ci fës te gis nga liste candidat yi bëree ah xam nga ko trois gis nga Assane bu dee da ñëw yow xam ñëway waa Amadou Ba ak Diomaye waaw d'accord ñi ngi jàll RTS mhm. ñëpp ngi campagne. kenn ku nekk yaa ngi seet non non ñëpp a fes. ñëpp d'accord waaw nangu nañ ko ko nangu nañ ko ko. léegi bàyyi ko mu yegg nangu nañ la ko. Asda da ngaa ñëw pour émission bi. barki alxuraan. ñëpp a ngi jàll RTS. waa loolu kay duñ ko. ñëpp ngi campagne barki démb yaa ngi génn am ñu nekk si ay àll ñeer ay. démb démb Malick Gakou lan la sol comme moom mi ngi campagne. non daal mi ngi seeti aw askanam xam nga am na loo xamante ni éliminé la maam maam daya dal ay nit ay nit. ànd ay nit di campagne nekk si àll bi nekk si raison yi di daj lu nekk nga ñëw éliminer leen mu leen bokk leen. ci loolu du yoon xalal. dafa am xam nga man xam nga ni kii def na. man xam ah. nga ni gis. loolu war nañ ko nangul ñi ma gis. Ah. mais nag kenn ku nekk a nangul. 19 ah, candidats dafay laaj didi dafay am na droit ne Assane campagne bi tey la clôture bi. Hmm. ñoo gisee candidat yi ñoo gisee yi ci ñett yi non non non. non non bu ñu si ñett yi ñetti favori lañu gis. non non non mooy ndaw ga mais liñ ci seetlu mooy ñett ñoo ci. man daal li ma gis. mooy candidat yi wàcc nañu si terrain bi campagne nañu. ñëpp a waxtaan nañu seeni militant ñi ngi dëgmal tëj te tey jii dina am ñu tëj bu ñu tëjee ba pare dinañ dem élection ki gën ci réew mi yàlla nañu ko yàlla jox ñi nga xamante ni wàcc nañoo waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy seeni militant seeni militant dégg nañu leen mm. ki si gën ci réew mi yàlla nañu ko yàlla jox ñu ngi leen di féliciter ñoom ñi dem ñëpp voilà loolu nga ñuy wax li ma si wax leneen joxal wax wax ma joxal elal <laughs> joxal elal oustaz jëwal ci loolu ci campagne yi ci lan laay wax ah ci lu asa bañ a tontu rek ñett ñi nga xam ñoo gën a fës waaw xam nga man xëy na yow di ma si andil tontu <laughs> yaa baam bi Euh, mën nga wax ni comme moom analyste la analyste kat la mu ngi seetaan xam ne xew ci ci ci ci ci ci Sénégal li fi li fiy daw ñëpp ko xam mais soo gisee man ko bul wax mu ñaanuma yàlla diw côté boobu nag maa ngi wax ak ci côté religieusement parce li leer ba leer mooy am na njabootu Amadou yoo xam ne mën nga leen bañ a xam. Mm. say wóola la lañ say xarit maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw sama ñaan la na xamul ñett ñi xam kenn ku ci nekk libre nga nga ne xam ma waaw d'accord naa sama ñaan la maa ngi ñaan yàlla bu Amadou gagné maa ngi ñaan bu Amadou yàlla ma doon man kese am nga ci droit am nga ci loolu am nga ci droit gars sérieusement maa ma fan laay waxee man damay wax rek ni Sénégal gi ñu toll kii mi ngi laaj favori ci gis-gisu nit ñi. xam nga nit mbir kenn du ko laal. ci gis-gisu nit ñi. jamono bii may wax ak yow. ba ma laajoon Souleymane kan mooy favori. Mhm. ci ñi nga gis dama naan la Diomaye man laa wax. Mhm. te mooy dëgg. ci man sama gis gi attention non non. non non da nga naan lu tax favori peut-être ba fini tey la vendredi de. Ah. suba la suba la dimanche. maanaam koo xam ne bu génnee ful topp ko. nit ñu topp ko. ay nit topp ko. bëgg leen bëgg ko. Ah, kay tey boo ma laajee favori. may leen ma nag ma wax bu boobu ba am bi boo mu yóbbu ci sa débat yooyu waaye yow. yaa ngi dégg te nit ñu topp ko. dama naan dama naan la. Mm-hmm. dama naan la jomaay. Mm-hmm. mais fi Assane waxee ne il faut ngeen dégloo ko ko mm-hmm. comprendre ko xam mooy lan euh, bu kenn sous-estimé kii que ce soit. comme moom ni mu def xam nga ni mu def moom ni mu def. dafa naan Bambi yaay Moodu wala Moodu ah, yaay wala dafa dégg Bambey Moodu Moodu mooy Bambi ah. xam nga kon léegi léegi nii pour nga ah. non de atta. may may may may gisee tënk élection yi lañ waaw ay si jiri tey nga jox asa bu adibé tey. ne doo ma dagg ba pare te doo ma wax loolu la may waxoon. acca Euh, campagne yi de diw ak diw da laa gis ñoom ñoo campagne. waaw ma xeebal ñu leen comme xeebal leen seen. campagne comme ñoo campagne. waaw foofu mun nga ne dama leen sujet. bien sûr mais dama ne la. waaw li campagne yi di réer. wane waaw ñëpp campagne. waaw waaw y a trois yoo xam ne. candidat xam ne waaw waaw waaw attention ma ñëw Bassane nee ma. Bassane nee ma nee ma ko nee ma ko. trois yi laa koy laaj ngir yàlla rek. trois yi trois yi Diomaye la Amadou ak Pur. ak Pur léegi ah déglu déglu léegi nag. waaw déglu benn fuul déglu déglu ma ñëw kon gisoo doxalee. nu ah, mu ah, ah, bu la neexee nga def quatrième position. non non Assane Assane Assane Gàkku bu nee rek maa ngi gàkku quatrième. waaye bu ngeen sama xamal maa ngi wax na ñëpp noppi kon dégg nga. ah ñu a maa ngi wax ni ñu kenn xaw ma lu ñu ñuy wax. dama ni. yàlla nañu nangu dama ni Modou. ak Bambi ñoom ñaar ñii. seen wax boo leen dégloo boobu ba tey. seen wax da ngay gis ni ñii dañoo faral Sonko. loolu laa ci gis man. muy benn waaw ma ñëw ñoom ñaar moo doog bam bi li ma wax dafa leer. du candidat yaa ngi dégg. nu moom laay wax damay wax. ñun ñu fi toog ñëpp yéen lan moo leen leer ñu fi toog ñëpp amu ci ku ci bañ Sonko kenn xamul ñun. mais a nga loolu du problème bi non non problème bi. maa ngi ñëw loolu du problème bi maa ngi ñëw loolu du problème bi. bu fekkee da ko mën a tontu li laaj. yow ñett ñi déjà yow la laaj teg nga sa première position. waaw déglu ma dama lay wax. dama lay wax. ni bu fekkoon ne mbooloo rek mooy topp ni taxaw gañe waaw kon am la Macky Sall du du am la moo doon topp ko teewul Macky Sall moo gañe affaire bi nañ def attention nañ def dal dama ni keneen ki nga xam ne boo ma laajee dama lay wax ci moom tey jii waaw doo ma dégg. fan nga bu ko dégg dégg maa bu tudd Idrissa Seck. <laughs> waaw dafa Seck laa Idrissa Seck mi ngi campagne te mi ngi dëkk bi. mooy deuxième xam nga loolu. mooy laa wax de ci man. Amadou jël man deuxième personne ci man. te naa la ah. tuddal quatre. waaw ah. ah. première bi question ci dama naan la carrément. au moins ren ni gis naa jomaay mi ngi liggéey. waaw. est-ce yaa ngi dégg. deuxième bi deuxième bi. moo xam ne rek réal dëgg la te yàlla tax. Ah. deuxième bi ah. Amadou Ba bii ngeen werante bi man laa wax man man man. Ah. Amadou Ba bii ngeen di saa xaal ni xeer yaa ngi Moodu. deuxième bi jàpp naa ni moom gis naa ni. ma nga ko troisième bi déglu li ma la wax sama gis-gis laa lay wax. troisième bi ah waa ji nu mu tudd. élément pire bi. Amadou kii Amadou kii mais kooku amul ku ko dàq ku ko dàq programme. Mm. laay kontaan na kenn dàq ko programme. Amadou wax la wax ma tur bi waaye. dimbali ma ci tur bi président. li leen pire Amadou Dia. Amadou Dia. Mm. Amadou Dia kenn mënu ko. Mm. sama jigéen bi. Anta Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia Anta ah, wax day xaar de. Anta Babacar Ngom mi ngi Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia bu fekkente ni déglu nag bu fekkente ni xoola teg ci taabal ji ak wax xam-xam bu ñu dégg. fii laa leen koy waxee de. Ah. teg ci taabal ji ak wax xam-xam bu nit ñi mën a dégg dem leen ngeen déglu ji Boubacar Camara. waaw parce que li ma leen wax de leen départ wala man dama koo ah, déglu attentivement borom xam-xam la te kii xam na ni borom xam-xam la Boubacar Camara ñi ngeen fi dégg ñëpp mboolem campagne mu ñu ci ah. ku ko ci raw amu ci ku ko ci ëpp xam-xam amu ci koo gën a dégg tubaab amu ci gëw ma ni sax am na ku ko ci mag gëw ko yéen fu ngeen fàtte Khalifa Sall mooy yéen waa mu ngoog attention daa aase Khalifa daa aase waa mu ngoog kon attention Bambi yéen a ngi fàtte Khalifa Sall. daa aaj mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci bagage daa aaj Khalifa kon cela veut dire que ni 17 yi xaw ma 18 li Assane wax sànq laay dellu si waat. Mm. ñoom ñëpp a ngi campagne bu kenn mm. am nga droit faral ku la neex. dëgg la moo la leen di man jomaay la man dara leer la parce que plateau la ñu ne kenn xamul ko ku ku ku nekk fa nga fa. du ngoo mais Moodu da lay da lay dugalaale. parce que Modou da lay dugalaale de. Modou kenn dugalu ma. Modou da parce que Modou. yaa ngi wala jomaay. Modou du mu ko dugalee. Modou Sonko loola jomaay rek. benn la ci Modou. Oustaz yaa ngi fañ pare. teg sa teg sa ra 1 2 3 4 5 6 léegi da nga teg ndaara ñooñu kon sous-estimé loolu. ku loolu mën a teg ah, yow yaa dama sous-estimé. d'après li ma teg ra. li ma li ma li ma teg 3 personnes ne 3 3 candidats ci fës. yow nga ñëw teg sa non dama lay jox ba cinquième ñëpp ay ndaanaan lañu dama tudd rek ah, ñooñu man néew ma nga ma ñett laa la wax kon cela veut dire que ni man ñoom ñëpp laa apprécié non ah, li Baye Assane wax dëgg la buñ nekkee RTS dañuy dañuy wax lu leer la wax eh, te sax boo ma doon tànnaloo bu caaxaan gi faaxee dëgg des nga may tànnloo ñoom ñëpp dama tànnloo ni ma nag dellu ci ñun ñun waa daara ji ñun waa daara ji boo ñu loo damay dem ki dëkk Kaolack sama waaju baax ji nu mu tudd Assane. kii ah, Mbuub Serigne Mbuub Serigne Mbuub. Serigne Mbuub. Serigne Mbuub day xaar. day bootu ji après moom na la di sa eh, loolu waay. <laughs> président foo mu dégg français. waaw waaw yooyu alaaji ñëwal ci nga xam ne boo di Cheikh Tidiane Dieye ak Habib Sy mi nga xam ne daal dinañ pare pour dimbale waa <laughs> Pastef ku ci mel ni. waaw xam nga tey moom débat bi dafa xaw a ala daw me man tey moom vraiment comprendre ma dara. Marcelo Ba bi nga xam ne da doon garder calme moom sax Baye Assane tey dafa dugg jiw moo waaw léegi parce que xam nga xam nga mooy débat bi. Didi am na mm-hmm. droit poser question bi du mu ko neexee. yow tontul rek Didi bu ko neexee mu ne. ci naa yu ñuy jot mm. diw sax mooy lañu wax ne mooy gagné yow bu la neexee nga ne ko non diw moom du gagné diw ak diw ak diw nangam loolu mooy débat bi mais di di wax di ni waroo posé ni question man loolu sax mooy posé problème yooyu eh, sa sa temps la non dama laax la gis nga sa temps la <laughs> baal sa temps la nga man bii ah. damaa jël sama xaalis def si essence mm. dem ànd ak euh, fii yoof ànd ak karawaanu euh, jomaay mm. ñu campagne dem Kër Masaar ba ñëwaat si guddi gi ba gaare ba ñi ñuy wàcc ma daal doog a ñëw tëdd si def naa ko dem naa Mbour campagne yi mm-hmm. lu may loola sëriñ boobu laa fi àndal campagne mm-hmm. mais buñ ma laajee si candidat yi mm-hmm. ñoom ñëpp kenn ku nekk dinaa la xool ba xam nan ngay campagne am na ñoo xam ne dañuy dem waxtaan ak nit ñi am ne conférence de presse la ñuy dem am na ñoo mais ñëpp dañu am programme moo tax buñu ne noo gisee tëj tëlu élection yi candidat yi ak seeni programme après nga ñëw si wax mais boo tànnee ñett day mel ne ñett ñoo fa nekk te ñett ñi kenn nit moo mën a gañe te kenn ku nekk ñoom ñoom ñooñu candidat yi xam nañ ne kat ñun bokk nañu si élection yi mais kii yàlla dogal ne moo ñu jiitu mais nag il fokk que ñu participer def seen warugar loolu moom muudu mi xam na ko yàgg naa participer si ay élection gis na ay ñoom Cheikh Bamba Dièye ak ñeneen ak ñeneen xam naa après dina si dikk gën koo leeralal mais loolu la rek loolu la laaj maanaam ki gën a fës mu ndax sànq bi ñu ma laajee ma dugg ci jamono Amadou Ba dama bokkul ci élection waaye léegi may tontu mooy euh, euh, Cheikh Tidiane Dièye ak Habib ñëpp xamoon nañu ne bi ñu déposé Baye Assane mii du ma bàyyi ma fenn laa na ñii ba avant Ousmane Sonko sax di ko révélé laa na ñii moom ay candidat Pastef lañu léegi comme ay candidat Pastef lañu te dem nañu ba ci cappaandaw ga te candidature Pastef ñëpp xam nañu jomaay la ñoom seen candidature amatul solo ndax ñoom même seen campagne dañuy wax ne dañu voteel jomaay kon xam nga kooku noonu maanaam euh, waaw maanaam waaw bu bàyyee du bett kenn même même même euh, bi président Ousmane Sonko génnee def vidéo dafa ne am na ñaari méthode soit ñoom ñu ànd campagne jël seen temps d'antenne may ko jomaay wala ñu désister dès maintenant mais boo dégloo Habib dafa ne nguur gi mi ngi doon nas ay pexe bu ñu désister woon boobu dès maintenant mun nañ gàllankooral candidature jomaay te waaw ñoom ñëpp dañuy perte moo tax ñu gunge processus bi ba nga xam ne amatul wàññeeku ñu soog a bëgg a wàññeeku léegi nag conseil constitutionnel lànk na amoo gisuma ci benn problème que conseil constitutionnel aussi comme ñoom ñoo fi nekk ba léegi ñoom dogal li ñuy jël la ñuy wëyal lànk nañu kon ñoom bu ñu demee ci bureau de vote yi dinañu fa gis seen bulletin waaye ñoom ñooñu nee nañ bu ñu leen voté nañu voté Diomaye pour man loolu du débat c'est clair beneen bi mooy xam nga bu ñu defee douze jours de campagne ba ak si cappaandoo gi sénégalais bu ne sañ ngaa wax ne diw ak diw de laa gis ne ñoo ëpp mbooloo wala ñoom ñooy gagné. muy benn sénégalais bu nekk sañ ngaa wax ne diw de bëgguma mu gagné diw laa bëgg mu gagné sénégalais bu nekk sañ ngaa ne bu diw gagné yàlla diw gagné. du foofu débat waru fa am dañ ko a nangu ñëpp oustaz mi am na ku muy sànnil kàttam waaw dafa nank fii la fii la du fii bàyyi nekk du bi non ndax du plateau bi waaw xaaral rek yow xaaral rek xaaral rek d'accord maa mu ma gën a nekk professeur si ay émission ba ngeen xam émission am na du waxu émission bàyyi san man mu far loolu départ man am naa candidat am naa candidat mais am na droit toog fii naan sa candidat yow xoolal Amadou Ba toog na candidat di attention dañoo toog li ma attention bañ gàcce la ñu wax. moo gën a xam moo gën a xam. bañ gàcce la ñu wax moo gën a xam plateau foot. moom li mu wax nii xam nañ du yoon de. amul kenn di li mu wax nii. a nga droit faral ku la neex. waaw déggoo li ma la wax. am nga droit faral xoolal ban bi. Ah. ba fii ma wax ak yow suñu waa kër. waaw ah. suñu waa kër eh. boo leen laajee dañ naan la Souleymane kenn mënta xam ku mu faral. waaw loolu yow sa vie privée la boo génnee sax xam nga lu tax amul loolu plateau. mais

man diw laa ànd laa la wax aywa ngir yàlla leen dafa far Moodu yàgg naa leen ko faru sax xam nga day kii noonu dafa far moom dafa far waaw waaw dafa far moo moo moo ma jigéen <laughs> moom ma jigéen nee na ma ngir yàlla waaye yéen tamit nag temps baa ngi dem temps baa ngi dem xam nga bu ngeen déggee moo moon waxu leen ba tey plateau wala hors oh, plateau marché wala boutique ma faralu ma wax li wax mais dama képp fii sénégalais la la wax moon waxu instant yi problème la yow si beneen plateau naan diw laa faral yal na gagné te boobaa muudu mi laa xam ne daganal na ko Assane ñëpp xam na eh, loolu loolu loolu wërta am loolu wërta am rek ma bu subaa ma toog plateau ni diw laa faral yal na d'accord Assane fii ñëpp ñëw laa faral dañ na rek ku nekk libre nga pour wax waaw moo <laughs> xam nga non xam nga dama ne sénégalais bu nekk am lu droit far loolu rek laa bëgg wax léegi nag gis nga di bu nekkee xam nga sondage dafay am nga dem nga laaj nit ñi ñu wax ay sondage seen intention de vote nga génne ni diw ñi ñi ma laaj de nombre bi nangam la pourcentage bi nee ñu nangam nga def sondage la ñu defee sondage mais par exemple day lu ñun ci média la ñuy liggéey ci image la ñuy liggéey li ñu gisagum li ñu gisagum man li ma gisagum laay wax c'est parti pour deux personnes xam nga sa trois man deux laay wax amadu ak Bassirou mm-hmm. l'élection va se jouer si ñoom ñaar bu ñu demee deuxième tour pur va arbitrer xam nga sànq ab maître Ablaye Wade def na communiqué nee na nañ jàppale Diomaye Ablaye def na communiqué nañ nañu jàppale Diomaye ndax li mu gis ci maanaam ci changement mm-hmm. ci justice ci nangam nangam nañu votel Diomaye pour loolu mën a am loolu Ablaye Wade wax loolu Ablaye Wade wax Ablaye Wade dafa yore parti politique man fekkoon waxaar rek déglu rek bokkul Ablaye doom bokk bokkul dama laa yaa gën a xam ne bokkul. waaw koo laal du bokkul Abdoulaye kon lu mu xam eh, la dama mel ne man dafa mel man dafa mel damay daal jiw rek gën a bi waaye dama la Abdoulaye xam li ma bëgg a mooy lan maanaam man man man personnellement man PDS moom seen jeu comprendre mu ko wax dëgg fa yàlla comprendre Abdoulaye PDS laa wax non Abdoulaye dafa naa Oustaz Oustaz GOPDS comprendre moo xam nga GOPDS comprendre moo PDS moo nekk parti boo xam ne mën nañ leen waxal juróomi décision ci benn durée bu gàtt bi PDS bëgg nañu dàq élection yi def nañ commission d'enquête parlementaire jóge nañ fa PDS nee nañu ñii nee nañu Amadou ñii nee nañu Diomaye PDS nangam ba gis nañu Mame Diarra Fam këram tàq ñu ne waa Pastef ñoo ko taal ndax la dafa dem ci Amadou non c'est ma li ma bëgg wax mooy Ablaye bi mu waxee ba dafa ne Ablaye Wade moom la ñuy xaar jël décision Karim Wade tey suba defaat na ne Bassirou Diomaye woo na ko waxtaan nañu ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñu toog Abdoulaye Wade def communiqué ne jàppal leen Diomaye loolu dafay la dañ koy jël en compte waaye léegi nag loolu day day day day continuer sama raisonnement mooy que ne Bassirou amaan na beneen appui de taille mhm. yaa ngi dégg kon ça veut gis nga élection bi ça va se jouer entre Bassirou ak Amadou léegi nag ci biir jeu boobu noonu au cas où bu parce que waa benn ñu ngi naan dañuy gagné premier tour waa Pastef neen dañuy gagné premier tour man ñaari version bi góob ma jàpp ma ci benn dina am ma dama gëm ne on va vers des deuxième tour surprise na mun naa am mooy kenn gagné premier tour ma loolu mun naa nekk. Hmm. yaa ngi dégg mais dama jàpp ne ñu dem deuxième tour te bu ñu demee deuxième tour pur bi nga xam ne mooy ñëw en outsider pur mooy. arbitre fu mu tegu fu mu tegu ci balance mu dem. tamit dëgg wax loolu cela ne veut pas dire xaar oustaz na xaaral nag. feeleel la kaddu gi jëmmal du ñëw ci yow de. Ah. léegi waaw lu ba nee na lu non xaaral ma kii léegi. cela ne veut pas léegi Didi Bambi eh, Assane oustaz cela ne veut pas dire que yeneen candidats yi démérité wuñu. Mm. c'est amosi bu ma nee Bambi moo baax. cela ne veut pas dire Didi dafa bon. Mm-hmm. il faut leer ci léegi cela ne veut pas dire que fi ngeen bëgg a yóbbu débat bi du foofu mm. yeneen candidats yi ñëpp muyee nañu la mayo waaye ay la yëwen ay la yëwen wax dëgg fa yàlla hmm. sénégalais yi jomaay bu génnee hmm. Amadou sax mu ngi dajale ful mais Amadou sax su nga gis ay vidéo ay xelal dañ maa jox nangam dañ maa jox du ci dugg dajale na ful ak lu mu dama dajale ko moo xam mais li ay da yëwen mi di ngay gis fii nii jomaay la hmm. ak Sonko léegi nag loolu ak ak Amadou loolu tey dina dina répercuté wu ci bureau de vote yi wait and see la ñuy wax dañu xaar ba àgg ca mais gis fi mu toll nii mbir mi Didi fi mu toll nii nii nii guerre bi système la ak anti système léegi nag ba ma mayee wax ci benn candidat bi wax. non wax nag Moodu nag léegi mu muy candidat muy Bougane Gueye Dany. xam nga Bougane dañ day wax vendredi bi. bon moment bi ñuy enregistré Bougane waxul xëy na dina wax ci ngoon gi. mais dama bëgg a wax ne la Bougane Gueye Dany waxam amul solo fi ñu toll nii xam nga amul solo. xam nga amul solo. élection dafa jeex ba pare. élève buy ni laar la. waaw léegi pare. daal ma lay laaj li ma soo xoolee ma jeexalee nga laaj. nañu tampon ku jéggi si. bu ñu tampon dagg nañ ñoom. léegi dem naa ba xamatuma man maay kan mënatuma <laughs> te taaru masalaa boo ko jëlee mu wax la xewe. loolu foog nga muñ taaru li nga bëgg wax yëpp xaju si. ni mu wax ni mu waxee ci Amadou Ba ak Amadou ni mu waxee ci. kuje gi Bambi laa ñu débat ci. tuuti bu loolu continuer ajaratu Bambi tey kuje gi dañuy waxtaanee euh, en tant que weeru koor ajaratu baam bi am ñoo xam ne ñu ngi xiiroo di ŋaayoo te fi ñu koy defee ci réseaux sociaux lu ci mel ni TikTok damay jël par exemple nga gis ñoo xam ne dañu ne si TikTok bi woor ba ngoon jot ne ci TikTok bi di yakkante lu mel ni xeme loo xamal sa morom wax ko mu nekk loo xam ne ajaratu Bambi rafetul ci diggante jullit ak moromam surtout ci mois de ramadan bi looloo ku jégi ajaratu ba mi ana nan jàngat nga ci am billaay mu mhm. man démb rek am na bu ma ci seetaan ci influenceurs yi billaay wallaay tallaay dama ko doon suivre sax mais dama moom moo abonné woon ci man ma def retour ci moom mais dama désactivé wu ci moom parce que une grande dame rawatina yow sëyoo sa yoon nekkul ci koor mhm. ak suukaru koor ak defante ba ngay wàlli bañal koo xam ne sa xaritu sa euh, jëkkër euh, jabaram mooy sa xarit mhm. kon seytaane weesul lool am na sëy yu bari yuy tas sa ay àndandoor ñoo koy tas ak ay wàlli bañe te seen yoon nekku ci beneen bi ci toog man dinaa wor ba ngoon 30 jours loo xam ne at mi benn yoon la ci. vingt neuf ou trente ma war cee profité jaamu yàlla fukki feeru yërmande fukki fukki jour jour yërmande fukki weeru njëggal fukki weeru fukki jour fukki fanu <laughs> yërmande man ma di ko jël di ko bazarde di ko sacrifier ci internet bi noonu nañu defaraat suñu toogaay surtout jigéen ñi nag ak ñi ma ko sañ wax itam mhm. parce que gis nga lu ñaaw baaxoo te nee naa leen fii internet tuddul internet inter denc la tuddu mhm. te vidéo itam tuddul vidéo weddi woo la tudd l'histoire retiendra leen lu ci nekk day des day des ci seen page ba seeni i sët ak seen sëtaat muy ñëy sëy muy ñi nga xamante ni sëyut gis nga wax kenn du ko fajee ci pénc ki ngay fajee ci pénc rek tàppet nga mhm. wax di sànni rek lay doon man su ma demee bay wax damay jënax yow ne la xadi lii ak lii ak lii ak lii ak lii yàqante yow njaajaa njaay nga am li say miseen dollom mais nga toog ci internet bi di gaaral sa nawle toog ci internet bi di xas sa nawle toog ci internet bi di xeexloo ko xam ne sa yoon nekku ci toog ci internet bi toog koo xamante ne mu nga toog di say say mais waxoon naa ko fi daaw maire bi nga xamante ne sama maam moom ko nettal Touré Balla ko yal na xippee ji àjjana nee na dafa ñë seet si xaritam ci biir néeg bi mu fekk jëkkër ji takk ko yeew ko ni ci lal bi mu ne ko laa yow lii ngay dund yow de yaa ñàkk fayda Assane bëggu la exemple kii di la di lay yeew nii di la dóor kii de bakko kii du jëkkër ndekki moom mu ngi dund la pur lu gën a garaaw loolu yàlla di dem di dem di dem di ba bés moom ndaw sa yow par exemple nga ñëw seet ma fekk man la Assane doon def loolu nga ñëw seet si ma ma fekk man ma naan damaa xiif ñu takk sama gémmiñ takk samay tànk ma toog fi ma toog di yàq sang bu ana ko gën a métti le kon yooyu yëpp mooy ñi nga xam ne dañoo seytaane du ñu conseil nit lu baax du ñu wax nit lu baax du ñu digal nit lu baax mais kenn ku ci nekk nag ak jigéen ñi ma ko sañ wax ñoom ñoo war a yeewu à l'heure actuelle mhm. xam ne man lii lu bon la du ma ko def ki lay digal lu bon du ko def ñi baax ñi ngi toog seen place li may wax chaque jour ma damaa bëgg kujje fils man dama bëgg defante mhm. mais defante lu baax mhm. sooy wujje ba ñu fi orange sonalee Euh, Tigo dafa ñëw Expresso ñëw réseau yooyu yomb na Senelec ma fi nekkee di coupé di coupé lu ma leen wax ba suñu fi amoon ñaari Senelec coupé di jeex carte bii ñëw bi bu gën a bon bi bu gën a seer bi nu mu tuddati oyofal oyofal musul oyof diisal la teg ci xeer la kon nañu defaraat suñu toogaay ñun jigéen ak ñu ma ko sañ wax surtout ci koor gi même bu dul weeru koor sax yàqante njaajaa njaay lekkante dëmmante mhm. defante ci internet bi baaxul du classe parce que seen yaay ñu ngi leen di seetaan bi ma xoola histoire ñoom euh, rakk sœur Demba Gise beeg ñee ku ne di xotteeku kee yaayam toog naan ko noppil bàyyil ñaan naa la bu naan bàyyi la ma ku ne di say di xotteeku jàmbaar amul ku yàlla dimbal rek fi nekk mhm. arrêté leen ngeen dal defaraat seen mhm. toogaay dugg seen ruqu mën a kan suba da ngeen di dégg yaay te ci alxuraan yaay mooy yaay kan ngeen defaraat seen ndax jigéen mooy société te mooy jur président mooy jur wàllu mooy jur mu xadam mooy jur ku nekk def defaraat suñu toogaay. macha allah na naka nga jàng looy ree <laughs> naka nga jàngatee deflante beeg dikkalante beeg yaa ma ne maa la ne ci internet ba pare nag. waaw am na solo loolu dafa yaatu nga defante bi si internet bi moom ba ci émission yi sax da gis ku toog ci émission. ñun la diw nga xas ko ba mu ràpp te defu la dara dañ laa wax rek diw mu def loo si xalaat au lieu nga wax salam def nga xas ko ba mu ràpp. waaw kon moom pour nga da toog si émission de ñu tudd diw rek nga xas ko te defu la dara de neexu la lañ nga xas ko te woor woor da woor di def émission ñu ni la diw rek nga xas ko. loolu am na ko jotewu leen dara. am na pare nag toog bëgg a joxe waat beneen leçon. <laughs> kon ñun ñun ñun ñiit il faut ñu boole sunu bopp ñi def émission yi. si weeru koor gi ak budut weeru koor. ñi def émission yi si télé yi. ñiy def émission yi si TikTok bi ñiy defante si TikTok bi defante njariñ li dafa bëriwul rawatina xaste man moom defante sax comme sa bam bi di ma wax ma di ko wax amul problème ñun ñaaree waxante mais ki nga xam ne ab jàmbur la toog ñun la diwle nga xas ko ba mu ràpp te jotewu leen dara mën naa am sax xamula xamoo ko mais sa njort la nga koy sa njort la nga koy àttee loolu baaxut mhm. en tout cas daal jullit yi nañ bàyyi xastante bi jullit yi nañ bàyyi yàqante jullit nañ bàyyi soxorante bi ak defante boo xamante ni amul njariñ bu dee werante nag mun ta ñàkk bu dee xuloot mënut a ñàkk mais nay doon ñaari nit mais nit ki nga xamante ni defu la dafa am benn gis-gis boo xam ne bokkut ak sa gis-gis gis na ne ceebu jën ko dàqal yow nga bëgg maafe nga taxaw ne lu tax muy bëgg ceebu jën dafa ñàkk fayda dafa nàng du noonu ñun ñëpp kenn ku nekk daal am nga droit am sa gis-gis sa gis-gis na nam la neexee nga koy doxalee daal loolu laa xalaatoon. muy noonu oustaz en plein mois de Ramadan. Mhm. Euh, nga xam ne dañuy woor du ma ne góor du ma ne jigéen mais dama naan jullit en général. Mhm. nga woor ba ngoon. Mhm. taal sa live yàq lu mel ni lu yàq didi lu mel ni xeme didi mm-hmm. tam taal live am yàq loolu mel ni xeme mm-hmm. wax say mbóot su di say mbóot mm-hmm. laka loolu naka nga ko mën a jàngate yow en tant que oustaz waaw xam nga jullit dafa am lu warul ci moom baam bi moo yëkkati kàddu gu ñaaw ci sa làmmiñ di ko jëmee sa mbokku jullit te senegal léegi maa lay xamal ni la képp ku jàpp ne dañ laa yeelu yaa ngi ci erreur ñépp lañ biral ñëpp biral nañ leen asan xam nga tey danga war a laaj sax ñu di def loolu di ci am ay vues wala ñi tey sàkku sax ay vues te yëkkati kàddu gu ñaaw rek di ko ci def alal dañ tey am di ci dundal seen def ndax dagat na wax lu ñaaw wax lu salte jàkkaarloo ak sa moroomu jigéen wala sa moroomu góor nga def vidéo xoola xoola baam bi vidéo àdduna yëpp di la seetaan yow amoo koo xas lu dul benn nit lan la la def moo tax suñu borom wax ni inna alladina yuhibbuna an tachia al fahisatu fi alladina amanu lahum adabun alim siiwal lu ñaaw yàq deru nit xanaa xamoon ni même njaaloo gi ngay dégg sax amuloo droit teg sa bëtti nit mu koy def nga siiwal ko sariya may la ko amuloo droit gis ko nii nit di ko def mu leer la ni yaa ngi teg sa bët nga dem di ko siiwal sariya nee na la tëjal sa làmmiñ wax loowuma la xam nga lu tax foo koy di fooy wut ah, di modifier a ruube. da ngaa comprendre dañ ne boo ko gisee da wuti seede. ko mu toog waaw dama lay bëgg wax sécuriser gi l'islam téyloo làmminu nit ñi ci li ma kii laaj loolu laa lay bëgg a wax Modou Modou borom am am ngay waxal de <laughs> déglul baax li ma lay wax dama ni waaw kay il faut nga xam loolu dama lay xam ni la dafa am loo xam lislaam di ko li mu wax gis nga ko dugg nga ci néeg bi yam ci góor ak jigéen ñuy sëy du ñu jëkkër ak jabar yow yaa ci yem rek lislaam nee na la tëjal salaam bi looy def ci néeg ba sax ba koy de dañ ci yem accidentellement waxuma sax ki programme mais kii dafa yem ci loolu lislaam nee na la amuloo droit génn wax diw day njaaloo ku dul seede mais seede bi lislaam wax moo la wan ni pour wax diw njaalookat la. yombul ci diine de. waaw parce que merci te ñeenti mënoo koo am. ala léegi oustaz nga xam ne ah, dama koy laajee. waaw léegi nga xam ne dañoo dégg affaire Adji yooyu loolu daal de. attention attention quoi. attention à ah, ah, quoi mboolem ko violé. dañu kenn amul droit juger ci lu loo xamante ni da nga naan Ousmane Sonko def ban preuve lañ ci am. ñi ko def lan mooy seen àtte. sariya dal na seen kaw ku ci nekk 80 yarang lay xaar. ak ñi ñu dee ñëpp nag xam-xam la laa lay wax de waxuma la sama xel moo leen dóor ku ci ne chaque bu dee l'islam am na yet hmm. bu dee l'islam am na yet képp ku ni képp ku ni moo ko def Ousmane moo violé Adji Sarr te du dëgg sariya ne nañ la door fanweer yi. du dëgg kay ndax justice la du bu dee dëgg la nag bu dee dëgg la. ñoom bu dee ah déet bu leen waxee droit. non ba pare. ah déet déet déet bu dee li ñu waxal justice dafa àtte ba pare. yow yow yow yow yow du wax beneen version. Ah, ah, du dëgg du dëgg am na ci yoon ba pare. déedéet justice moo àtte. déet oustaz suma affaire Sonko ak Adji du ba yow man xiyam du wóor kenn. am kay leer na naññi. Ah leer leer na naññi leerul ci sa bopp. non attention déggoo leer na naññi justice ñëw na. ñu la yow ñu ne du dëgg. yow problème mu viol la de. déet waaw problème mu viol la góor gu jël. nangamam dugal ko ci awra dañ ne du dëgg. li ñu waxee dafa leer dafa ndax moom laa ni la mais yoon nee na du dëgg kenn amul droit waaw waaw ko dëgg dëgg waaw nangu yoon a bañ na ah, la défier Modou li ma daale ah, ah, dama ba ko koy wax la mais ak baasa li mu wax dëgg la nga mais da nga naan tekk déglu ma te yéen ñaara far <laughs> <laughs> tijjee plateau bi moo leen wax ne li ngeen di wax faru ñu complot tey faru ñu xoolal bam bi far amu fi dañuy waxtaan dama laaj mbooleem li nga dégg ñu wax ci Sonko mm. ba ni ma ustaas yi man leen ku ci wax ni Sonko daa weer aji saar charia ne nañ la dóor wóorul amoo ci lu la leer fekkee wuñ seedew te du la as ko xas du def ah. waaye nag lan moo ñu wóor nag def na am deful wóoru la tam yo ma bee ñàkk yoon daf ko àtte ba pare loolu puus nañ ci kon waaw ci yoon laa yor léegi kaddu jël làmmiñ gu ñaaw di ko wax ci kaw delu nit mhm, yeneen ti bi nee na ku gi nga gën a xam yaa ngi gën a yàgg ci télé a xam luy télé ba may xamante kii non ba ñuy xamante lu tey <laughs> wala Moodu tey la xamante Moodu Moodu Moodu deux mille deux mille onze laa xam Moodu ah, deux mille onze de deux mille onze dañ ah, xamante yaa ngi ñëw si beneen gaam <laughs> yaa ngi dégg waaw mais maa la mag du duuma mais mag yow wóor ba wóor ba ngoon di yàq sa morom lu bon dafa ñaaw wóor di sant yaa ma yàlla bëgg ko yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggul ku yëkkati kàddu gu ñaaw di ko jëmee ci sa mbokkum jullit moo tax mu ni la kenn ci yéen ngëmam du mat kenn ci ñun ñi moo xam man la moo xam didi la moo xam mbaam ñun ñi kenn ci ñun sa ngëm du mat lu jul ni nga bëggee sa bopp loolu nga bëggee sa morom dañoo war a bëggante bëggante bi nag inna dawaayira anwaanu bawaatin lii feeñ ci suñu xar kanam yi na ne ci suñu biir xol yi loolu mooy bëggante lislaam loolu la bëgg jullit du tong moroom moroom jullitam laa yaxalu lil muslim an yaajura aqaaw fawqa salaasin trois jours la ñu mel amoo droit xuloo ci nit ku ci dee dem safara ci biir trois jours trois jours l'islam nee na la jullit piir amuloo droit xuloo ak sa mbokkum jullit ñetti fan non non ci biir bi moo amul droit xool ñi fi ñun ñaata fan la ñuy xuloo fan la ñuy xuloo ay 15 ans ay 20 ans ah, am na xuloo yoo xam ne seen i bopp lu xuloo am na yoo xam ne xoola seen i bopp deewaale nañu ak xuloo ñàkk fayda ab jullit di yeen fulla xoola ñàkk fayda mo xoola xam ne xuloo xuloo ñàkk fayda la <laughs> ah dañuy xuloo ba pare ñoom nekkuñu si ay leçon di joxe ay leçon nit ñi leen seetaan waaw ba pare bëgg a loolu damaa jaaxal am loo ne ñu da ngay toog nekk nekk loo xamante yow jëm asal da di moom boo toogee naan nit du xuloo waaw mais tey yaa jaaxal na dëgg la wax di jaaxal maam mi question bi yaa ko moom doon laaj Paa boobu dama koy waxtaan. c'est la pire vérité. parce que ba pare. yow kenn musu laa gis ak saabu. non man moom man oustaz. ah man moom man moom man moom man ko ah góobo man bu ne xam na ko sama yaay kër man du ma xuloo damay man waaw mais man man oustaz man man moom du ma xuloo mais damay bàyyi waaw xam nga sariya daf ne la. waaw man a yow suñu tongooyee. sariya nga ma laaj waaw sariya laa waaw sariya laa sariya daf yow suñu tongooyee. may nañu ñetti fan. ñu juboo suñu jubóowul ñetti fan. kenn ku ci dee boo dee dem nga safara. waaw ma daane s'il te le rek s'il te plaît rek. Mm. xam ñu tam jàng nañ quoi mm. tamit. sariya tamit ne la yow oustaz man boo ma tooñee su dee mënu ma la jéggal. bu dee mënu ma fayu lu am li ma la def. waaw mënu ma na jéggal ma fayu mm. lu am li ma def man nag Senghor maa ngi koy wax je répète et je la répète man du ma mm. fayantoo. man du ma xuloo mais damay banit. waaw li déglu ma nag damay ba damay waali bañal. waaw li déglu ma nag. sama défaut la. waale bu ma ci yàlla di dóor ma angar. ba ak yooyu sama jikko la man. bu dee l'islam nga ma laaj. waaw l'islam moom li mu bañ bëri na oustaz. waaw waaw léegi ñëw yaa ngi joxe loxo. waaw léegi ñëw ñu bañ a ah, nañu ni day appel vidéo. waaw mu ñëw day joxe loxo te te te sariya daf ko bañ. arrêté leen nag bind leen seen dara épinglé wu. Assane ñu dellu Assane Assane Assane waaw Assane ñu dellu si. léegi ñu ànd ñun ñëpp. ñu ànd ñun ñëpp déglu ji ñu ànd ñun ñëpp déglu ji waxu yonent bi Aliou. da ngay tëjee da ngay tëjee foofu. yonent bi nee na. Assane ñu déglu. waaw yonent bi nee na vraiment dafa la jaare waaw ñu déglu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax. Oh, suñu borom moo ni. inni haramtu zulma ala nafsi man yàlla dama araamal tooñ sax ci sama bopp mu ne bay jaala baynakum muharraman araamal naa ko seeni diggante tooñ tooñ weesoo tul nag ma toog sama kër jël sama téléphone waaw waaw lu lu waaye liggéey lu ne sa loxo lay lu waaye rendi lu ne sa loxo lay naaj ah, ndekete lu waaye rendi sa loxo lay naaj googu man am na ko may waxal. waaw ah. est yaa ngi dégg wax lu ñaaw lu ne wax a wax xoolal gis naa ci koo xam ne dafa da dafa xase baaxul baam bi parce que kii dafa xas a xas koo xam ne dafa xas a xas dem nettali ko seen waa kër seen waa kër ni ki mu xas boo demee na nga ko wax ne ko maamam bu jigéen moom dañ koo ëmbaloon ay subhanallah ma de lii kenn nettalu ma ma lu ma xam la lu ma xam laay wax xas xas baaxul. parce que da ngay xas ndekete yow li ngay xas da nga foog ni nekkul ci yow yow pour yow yaa mais di xoolal ma boobu wax loolu. waa kañ ngay tëj. moo tax nag yonent bi wax ni yonent bi salaa salaam wax ni didi falaa tazaalamu tey émission bi dafa rajaxoo rajaxoo bi nag kenn indiwu ko lu dul muur yow élection yi la élection yi la élection yi la waaw tabaarkalla loolu daal laa ci amoon lu ma ci lu ma ci wax soxna didi kontaan naa nag moom tey moom tojati nga fi rajax dëgg neexul ñu dem jëli ah baal ma baal ma xel mee fatt rek ñëwal ñëwal sukku jëgi eh ñëwal sukku jëgi yow alaa ñëwal waaw dama xel mais fàtt nag. <laughs> waaw léegi ku jéggi. xam nga ku jéggi aar masala yi la yow laay xel di. Oustaz moo jël temps yëpp tey moom. tey moom sama temps de parole non yow da ngay waxee bi yëpp didi xam nga xam nga nag kii bi euh, xam nga malheureusement internet dafa maanaam dafa wuññi suñu sutura. dëgg maanaam li amoon ci biir kër la internet wuññi quoi. xam nga bu njëkkoon xuloo yàgg na fi ci diggante mag ak rak mm. ay wujjee ay bari na fi yàgg ay dëkkandoo bari na fi mm. wante internet dafa ñëw internet dafa ñëw wuññi suñu sutura mm. internet nag loolu taxu koo jóg gis nga même bu dul weeru koor didi bu dëgg fa yàlla jël kàddu di ko teg si lu ñaaw di ko teg sa morom loolu baaxul wax dëgg fa yàlla loolu baaxul xam nga nag léegi nit ñi ñoo war a revenir à la raison mm-hmm. man yi may gis ci réseaux sociaux yi dara neexuma wax dëgg fa yàlla man nag du ma ko seetaan mais dafa xam nga defaa nga défilé gis ñëw après di nga dégg wala nga toog gis Bambey di di waxtaan di la wax ay cas nangama nanga mais maanaam nit ñi nañu dellusiwaat à la raison te xam ne tey yaa ngi am at yi nga am nekk jeune di def internet bi li ciy dugal du ci génn boo amee ay at yi nga xam ne maanaam loolu génn génn na sa sago après yow vidéo bu ñëwaatee nan nga koy nan nga koy réceptionné li da ngay gis man ak Bambey ñu toog di def vidéo ku xaqataay suba Bambey taxaw fële ma taxaw fee ñuy yëkkante lu mel ni xeme mais loolu mooy lan saagante saaga ñaaw loolu mooy lan da ngay gis ñu ne diw ak diw wala man tooñ naa bi yow nga génn ndax xarit bambi nga yekkama lu mel ni xam soo ma gis ne yow bambi ngeen mel ni loolu mooy lan mm-hmm. nit ñi nañ war a xam ne seen problème du réglé woo ci réseaux sociaux yi taxaw ci réseaux sociaux yi saaga sa morom du ndam man loolu lâcheté laa ko tuddee mm-hmm. ndax man du ma ko def ku ma ko def tamit du mën a tontu mais loolu seen lâche nit ñi nag nañ Sénégal connexion yomb na mm-hmm. nit ñi yor nañ ay téléphone ku nekk yaa ngi dugg yaa ngi def loolu ne mais na quand même damay wax nit ñi nañu ne nañu gën a góor góorgóorlu lii buñ ko buñ ko bu ñu sifflé wul la sifflé wul fii la récréation suñu doom yi moom man ci monde bi ñu nekk moom la xaw ma ko wax dëgg fa yàlla léegi ñi écoutez mais da ngay gis ko xam ne responsable am ay doom mais gis amal amal kersa ci say doom sax xam nga dama diine dafa sori pour man diine dafa sori maanaam société société bi ñu yor nii loo xam ne ñun maanaam musuñ nekk suñu habitude te dama ko gis ci internet bi soit nit ñi ñoo comprendre lan mooy utilité internet wala boog nit ñi ñoo dérivé jëm ci côté boo xam ne baaxul voilà léegi nag yooyu nag vraiment nañ ci du weeru koor ak ñàkk weeru koor dañ ko war a bàyyi voilà loolu daal laa moon lu nga xam ne mu ko ci wax oustaz moo jël temps bi yëpp tey ci émission bi vraiment man su ma waree wax du ma wax vraiment ba pare soo sa garabu bi jaaxaan fii xam nga bu ma diri joxee temps yow Bassel ku nekk jël na ci ku nekk deux minutes wala cinq minutes muy muy cinq muy cinq minutes. sama temps day jeex. ndax ma damay sànni benn pion rek yéen ngeen naaw. voilà Assane nag sénégalais yi dama leen bëggoon lancer benn message Assane Mesere moo nekk seul sénégalais boo xam ne taal na otom campagnal Serigne Mboup. ñëpp la campagnal Diomaye ak kan. Ah? ak pur. ñetti candidat campagne nga. am na dégg ma kon ci Barthélemy Dias tamit sax. fépp la far Barthélemy Dias sa xarit la woon de. di nga xool ñu dem campagne leen. a campagne incha yow yaa Sénégal bu def kii diw diw tiir la. Assane diw tiir la moom Amadou Ba ñoo yem ay diw tiir la. c'est quand même xam ne Assane Assane conviction am Diomaye la àndal. Mhm. bu demee pur jafarama tax. Mhm. Serigne. yàlla ñu boole. waaw Barthélémy Dias du ko booleeg moom. mu ngi noonu. Euh, yàlla Barthélémy Dias ci eh. vous plaît. donc am nañu tampon masala. waay c'est bon voilà oustaz tey question bi ñuy njëkkee kii daf ne euh, musique football ak takk chaîne ne dafa araam. waaw lan araam. ku koy def lan la charia wax ci moom. naa question question la boo xam ne dafa ñëw. Mhm. dafa question la boo xam ne dafa ñëw mu laaj li la di football mhm. la laaj ak musique ak takk seen takk seen moom dafa araam ci góor. Mhm. loolu moom ko teel a xam Sénégal nag ngay gis lu neex bàyyi def mais takk seen dafa xaraam ci góor. góor li ñu la may may benn jaaru xaalis may nañ la ko nga takk ko bu dee jigéen nag ay takkaay moom wàññiwul ci moom dara bu dee jigéen ay takkaay wàññiwul ci moom dara macha allah ndax taar rek la cay wut kon côté boobu loolu laa la ciy wax. Mm-hmm. beneen bi nga xam ni mooy wàllu musique baasal musique tëb tëb parce tey boo tëbee tam ni musique day dafa xaraam musique araam na yam foofu da ngay indi problème ndax instrument yi nga xamante ni moom la nekk di musique yi am na koo xam ne musique bi muy def moom ma nga cay tagg Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw waaw kay boo ma bàyyee boo ma bàyyee boo ma bàyyee ma leer naa la ci naa la dundal tey ci musique ba nga comprendre waaw ah, ki ñëw bismillah musique bi nga xam ni instrument la nit jël di ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku kenn du ko araamal mm. yaa may déglu bàyyi sànq waaye am na foo xamante ni. kuy tagg yonent bi moom du araam. mënut a aar bu amee ay rëng-rëng. mais fi doy waa xam nga mooy la. dem di ko taggee ci milieu boo xam ne doon la yonent bi nga fay tagg. boo xefee di nga ko araamal mooy góor ñaak jigéen ñi dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ni l'islam àndu ca. l'islam jaxasoo ba la ànd. waaye maa ngi ñëw maa ngi ñëw boo ma bàyyi di nga. di nga laay déglu kay. su dee musique bii ñu xam bii ñu xam Sénégal. bi waa Sénégal de bii mooy mbalax mi ñuy def nga xam ni dañ koy jël di ko def boobu musique dafa xaraam mutlaqan du ma fi nekkee sax naan damay raay raayal ak damay neexal ak damay indi ay exception boobu musique moom bayasan bii ñu def Sénégal te ñu gis ko ñu koy def ak format bi ñu koy defee parce que lu mu ci mën a doon nekkul ne acte bay bay tax ñu naan moo araam moo ko araamal mais la ko wëree koy araam loo bayasan dégg nga ma. waaye dama laaj laaj ma laaj la nee nga musique dafa xaraam. Mhm. nga ne nekkul acte moo xaraam waaye li ko wër moo. la wër musique ba yéen cay defal waaw sama mhm. ko wër bu fa nekkul. Mhm. musique bi day daal daga wala day daal xaram parce que baasa xaram. baasa mi toog teg di déglu. li ko wër dara xaraamu ci. foofu musique ba day daal may déglu nag. yow laay déglu kay. xam nga musique boo tëbee tëb ni la ma tëb tëb rek ni la. nga posé ma question parce que question la moo xam ni bi ko nit ñi dalee laaj Thione Seck dafa ñëw fii Thione Seck mel dafa ñëw fii toog ñuy def émission hmm. boobu def naa grand soir la bi tudd ñuy def émission man ko Thione dama la bëgg laaj ndax musique musique bi ngeen def nii mba est xam nga lu ci diina wax dafa dagan walla dafa araam mu ne man de laajoon naa ko Sidi Lamine Niass am na lu ma ci waxoon dama la ciy dimbali musique bi Sénégal di def bii nii Modou pour bañ ni détail parce que soo ma nee soo ma nee Assane nekk na ci biir néegam. waaw déedéet yow yaa nekk man mën naa toog sama biir néeg ma de Ousseynou xaaral tontoo goo ma de. tontoo goo ma de yaa bëggul ma de waaw non c'est parce que ma yore yeneen question yu war a ñëw. waaw waaw ndax question yi dafa maa intéressé dama laa laaj ne la. Mhm. da nga ne musique bi en quelque sorte même bu xaraamul contour bi. waaw maanaam fañ koy defee jigéen ñi góor ñi ak ñi. merci beaucoup jaxasoo wala defe naa. loolu moo xaraam loolu musique booba. waaw léegi ma ne la musique booba noona Assane Mesere bu toggee bi néegam moom kese di ko déglu en tant que instrument dafay waj dafay xaraam léegi bu fekkee loolu la léegi bu nekkee da nga da nga dafa xaraam dama bi façon musique yi la teg ñun ko tax ab nitu yàlla la ko waa lu tax ngay déglu musique bi mu ne waa musique bi bu mu koy déglu yëg-yëg bi ma ciy am ci yàlla la may yóbbu xooluma en tant que musique bi mais xam-xam bi yàlla may nit ki ba mu mën a créer dajale ay son son boobu ma koy dégg muy neex ci man maa ngi ciy jaamu sama borom. loolu dimension la. Ah, oustaz muy benn lu ma rek may wax ak yow. damay wax ak yow muy benn. mais pour ñu bañ a bañ a détaillé mu bañ a gudd. musique Sénégal bi yaakaar naa ne moo tax nga may laaj. ñu bañ a détaillé. bii am Sénégal dafa arang parce que Oustaz non non non Oustaz ah, beneen beneen beneen bii ba pare beneen xaar Oustaz c'est que nekk xaar. Oustaz ah, yow laay déglu de am naa temps. waaw Oustaz dañoo nekk. Mhm. ci réew moo xam ne. Ah. maanaam nit ñi booy wax. il faut nga di leen convaincre. waaw te yow diine nga waxaloo say wax waxi. jàmm waxuma sama waxi bopp. waaw léegi da ngay andi. Mhm. masala bi aaya bi. Mhm. nga ne yàlla nee na. fii ba fii. fii la araamalee musique xaar rek mhm. Mhm. parce que da dégg borom xam-xam yu bari seen yéen ustaas yi mhm. ñuy wax ne yàlla bindul fenn ne sàngara dafa xaraam alxuraan baqara ba naasi ñu ne bindul fenn ne sàngara dafa xaraam wante pourtant dañ koy kii dama dégg ustaas Alioune Sall mu andi ci tontu bu bu rafet ci cigarette la ko andi nag mu ne parce que yonent bi dafa doon aaye boo amee yenn xet yi nga dugg ci jàkkaam yaa ngi dégg xam gis fi mu ko andee de mun te yooyu noonu mu ne cigarette boo ko tuxee xasaw gi muy kon mun nañ ko boole ca xeet yooyu yonent bi doon aaye xam loolu tontu bu rafet la maintenant bëgg nga musique bi ni nga andi ko nga ne ma fii ba fii lañ ko araamale ndax xamul dax man sama problème mooy leen ci musique bi instrument bi moo araam wala way bi moo araam instrument wala wala wala man il faut ngeen andil ma loolu parce que day mënuñu wala boog nga andil ma aaye bu leer nañ waaw ne ma fii la araamee ban waaw du ma ci débattre waaw waaw xam nga la yàlla yu ti fi wax ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy fo bi yàllay wax waaw nga xam ni yàlla dafa wax ni innamal xayaatu dunia laxibun wa lahwun wa zina nga xam ni suñu borom da ko daf ko wax leeral ñu ci ni àdduna euh, euh, euh, fola la àdduna tartar la àdduna ay caaxaan rek ñoo fi dajaloo boo jëlee musique yaw Moodu en tant que yéen ngeen jël caaxaan yi dugal ci musique ci caaxaan yooyu. mais musique dafa am caaxaan yàlla bi mu taxawee wax na yàlla xam nga la non yaa ma laaj bari yaa ngi may jàpp ah, ma laaj ma war laaj parce que ay bi attention non musique nga ma laaj waaw ma lay wax ne la musique bi nga xam ne andil ma aaya bi ñu ko aaya yëpp lu ma la wax yàlla dafa wax ne àdduna lépp loo xamante ni Euh, tartar la. waaw ne ma alhamdulilah laxay bun dafa bari fo. waaw ay caaxaan. wala baatu laxu boobu. la ñu wax ni génne nañ ci. ñenn ñoo wax loolu xeetu fo. ñenn ñoo wax loolu bu fassiru na yi loolu. ñenn ñoo oustaz. di non Modou bu ñu dugg ci. c'est musique soo laaj non non soo ma laajee man ma gën la xam ni nga may laaj. waaw bu ci détaillé xoolal waaw non non non oustaz déedéet bañ a détaillé. non non bari moo def masala. war a leeral. attention attention non non man dama bëgg xam nga la c'est oustaz. waaw xam nga bu ñu nee njaalo dañu naan njaalo dafa xaram dañuy andi fu ñu ko wax. non xam nga tey attention mais musique bi c'est que da ngeen mënul andi fu ñu waxee ni musique dafa xaram xala waaw génneel ma benn loolu laa wax déggoo ko dugal yow yow yaa ko jël yow déjà non yow dé dé ma man yow fi ko andi dafa am musique yoo fa seppi ba pare. Ah. jël yeneen musique maanaam bu Sénégal bi nga jël ko yow. dugal ko fa. te yow amuloo amuloo légitimité boobu. Sénégal non ak li li mu koy defee nii. mais yow nga bàyyi naar bi nga xam ne. naar bi nga xam ne naar waxaana fa laay jëm. naar bi nga xam ne. waaw dafay woy mbëggeel. waaw toog ca. fu ulafaa yu toog ci buuru mag yëpp toog. waaw waaw mu bëggeel. waaw nga bëgg a jël musique kooku. waaw déglu kooku non c'est que Modou. Modou gis ma rek dafa ma doon non non déglu ma déglu ma aay bi rek aay bi wax ne musique dafa araam. waaw déglu ma xam nga aay. boo leen lax ba pare jël lax dugal ci musique bu mbalaxu Sénégal. non non. xam nga dañuy waxtaan ci diir ah, non non attention. ah mais yaa ko wax. boo gisee masal yaa ne lax boobu noonu fa nga jël. boo gisee masal masala ah, masala du caaxaan waaw mais masala aussi boo waxee loo xam ne aussi ñun mënuñ ci teg baat ci teg baat aussi oustaz man dama lay indil baat ni la baat boobu suñu borom wax nañu ni baatu caaxaan la ak fo. waaw mais bu ñu duggoon musique bu ñu duggoon musique musique kenn mën koo wax fii ci Sénégal. mënoo fexe yow mën nga fexe ba Modou yow mën nga fexe ba daganal mu Youssou Ndour musique bi muy musique. waaw defal naa man dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan foog ko se dise la vérité. man daganal ma mais yow yaa ma araam da nga maa war a wax dama ne ma coono seet musique parce que léegi Youssou Ndour voilà Youssou Ndour Youssou Ndour ma ñëw ma ñëw way na yonent bi way Sëñ Touba way Baye Niass léegi morsom yooyu noonu dama ko jël nga daganal ko jël yéen dugg ko fii fo araam foofu mu koy dagan na moo tax woor maa déglu soo ma dul déglu. <laughs> soo ma dul déglu. masana bi dañ ko andi wànde c'est que war a déglu. parce que moom xamul di ma laaj. oustaz mais day nangu ni parce que ma waaye yoon na ko suy analyser ci politique dama koy déglu. oustaz loolu boo damay andil aaye bi oustaz. déglu leen ma déglu leen ma damay andil aaye bi. c'est oh tut tut tut. déglu leen waaw gis nga nu mu méttee voilà yaa ngi. loolu la wéy non non non non. yaa ngi indi bu nekk non non non. dañuy laaj dañuy laaj laaj dinañ ko def yow yaay borom xam-xam bi dañ lay laaj dañuy laaj dañuy laaj. waaw oustaz li mu leen di wax leer na faral son génn son moo aayut nee ma waaye live maam kii tudde concert moo aay. concert fa la góor ñeeg jigéen ñi ne mais génn ab son aayut. li ma wax son aayut son kenn ne musique ci boppam buñ ne tëbee ne la musique dafa xaraam mm. mais lan moo tax ñu la dafa xaraam. la wër musique moo araam loo musique. mooy di fo di jaaxaat waa ay xale jigéen ñu génne seen. ngeen baax a ñu génne seen daat génne seen waaw même instrument yi. soo ko jëlee même instrument yi nga jël ko. da ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala nga ci indee parole. parole yu baax. fi nga nekk ci studio. Youssou Ndour mi nekk ci studio. génnee son. daan ni alalu mbooloo. bul ko fawee mu ak ñu accompagner ko mais pourtant studio la ko waxee ah. bi mu ko waxee studio araamu fa loolu la ma waaye ba ñu fayee xaalis ba concert dem concert yaa ngi may déglu ah, moo tax boo dégluwul doo xam xam naa loolu ci at boo ko xamul loolu léegi loolu ma boo defee Assane bu toogee néegam di ko déglu yaa ngi déglu te pourtant yow yaa ne mbalax bi ni ñu koy defee fii dafa xaraam. mais dafa xaraam mais waaw loolu laa la wax na la oustaz. bi bam bi Modou yaa ne waxul loolu xam bu ma koy indee baatul la te mooy fo te Modou jàngul luy lëxwu xamul luy lëxwu xamul fo na ma bàyyi laa jël musique dugal nekk fo ay borom kër fo loolu du wax dama la xamul ba pare nga bëgg a jël musique yow dugal ko foofu noonu mais yow dafa nga jël xaar xaar xaar xaar xaar jël jël musique sélectionné yenn musique yi dugal ko fii jël yeneen musique yi dugal ko fee mais attendez bëgg a lii bëgg a araamal lii te lépp di musique man laa dul nangu na tey nangu ko tey su su ma andilee bàyyi sa Alioune Sall l'exemple loolu su ma andilee waxi yàlla comme su ma ko laajee tey njaaloo. dafa xaram dafa xaram. na ma yàlla nee na nangam ak nangam ak nangam waaye oustaz bu ñëwee bari jël aaya ba pare andi loxo tëjji loxo jël musique yi sumbur yii di génne dèjà musique yi da ko jël xaj ne yii ma way lii bu ko dugg mais attendez su ma dégluwul lii li may laaj nii dama ko koo gën a xam bu ma ko fekkee ci muy analyse di politique ah, dama koy déglu ah. déglu woon may def politique léegi da nga maa da nga maa classe classe classe non classe bi yow da nga jàpp ni ma laa classe waaye musique bi moom waaw da ngay jël yëpp dugal rek wala nga génnee yëpp rek loolu amul nag léegi xoolal day nee na musique bi da ngay jël ñëpp dugal wala nga jël génnee yëpp mais da nga woon noonu mais bu Sénégal la la wax dama ni conseil conseil dama ni fi ñu conseillé masala léegi baasan baasan fi ñu conseillé tey déglu ma fi ñu conservé place bi ñu conservé. fanaan faa naan sàngara. def fa lu ne. concert bi jeexul bu ñu xëyee suba mën nañ faa julli tisbaar. Hmm. ah bien sûr xam nga loolu. ah bien sûr wax très bien kon su ma waxee ci même jëmm ji. ni la fi mu koy woyee ba jox la ni la biir studio ba mu koy defee de dara nekku ca. waaye bés bu ko yóbboo fa mu koy yóbbu. am na ñu fay daje. mais bàyyi sa bu doogee nekk bi. ko déglu moo araam. bi araamul cest à defu fa dara lu fa araam yow waa léegi kon nit ñi dajaloo di ko def nit ñi fa ñu dajaloo ñoom dajaloo ko araam mais pas musique bi ñu fay dëgg waa léegi xaaral ma laaj benn affaire ñëw damay ñëw di nga gis ay tabala ñuy tëgg. ñun ñëpp ñu gis bi ñu defe naa ñu ñëpp ñu gis bi ay vidéo ay cant yoo xam ne lu ne ngay gis waaw cant wala ne ñu baal ba fekkee sax moobu cant bi approprié wul nga gis ay ñu dëgg tabara Seydina Muhammad nga gis jigéen di pàkkan ñu góor di pàkkan waaw léegi foofu dafa xaram moom léegi waa de non yow laay tontu de ngay way ngay way mais ka ñi fële kàppar ñi comme ca kàppar mais est-ce dina tax ñu toog fi ñu loolu dagan na déedéet waa Oustaz c'est que ah, Oustaz nag vraiment. wax ma delloo leen ngay rek. ma joxee li ma moom. affaire day simple mooy. ah duñu la wax ni mu nga dañuy yeew dañuy yóbbu de dañuy wax su xalaat. Ah, non yow ma adego aye bi daal Oustaz. waaw la mu wax li mu def lu mu tudd yow wax naa li ma la wax doyu la hmm. am nga ci sa droit andil ma bi dama bëgg nga andil ma aaya bi surtout moo wax ni àdduna bii de ay caaxaan la ak ay fo hmm. musique boroom xam-xam yu bari indi ko ci cadre fo def ci tafsir yu baree bari hmm. mu fasiru nay wax ci yow liiroo yooyu téere maa leen liir maa dox ba yem ca hmm. xam la ko wax nga bëgg cee discuter ak man du ma la werante ci leneen waaw léegi baal bu mu jaar léegi baal bu la may laaj waaw loolu dafa des waaw bu dee xaaral man xam lu may laajte ci biir musique bi dafa am sew sew. nee nga musique xaraam na ci benn côté. détaillé nga léegi yow fi musique xaraamee. te ma dama mës a gis saas Modou Fall toog ak Pape Aat toog ak Pape. si bàyyi ma rek déglu ma déglu ma damaa mës a toog. waaw déglu dama mës a toog dama mës a toog dégg Oustaz Modou mu ne Pape Cheikh Diallo musique dafa xaraam. Pape Cheikh Diallo na ko hee musique lay fay ndax Youssou Ndour day woy waaw léegi nag bu fekkente ne musique dafa xaraam la ko Pape la oustaz wax Pape jàll na ko musique moo lay fay léegi oustaz xaalisu musique boobu ndax Youssou Ndour woykat la bàyyeegul woy waaw léegi xaalisu musique boobu ñu koy fay hmm. moom bu ko lekkee riba lay nekk ci moom xaraam gi dëgg la wul dëgg la Pape Cheikh Diallo xam nga fu Pape Cheikh Diallo juume fi ko Pape Cheikh Diallo ne Youssou Ndour moo lay fay te xaalisu musique la waaw te du xaalisu musique ndax day. ku la wax du xaalisu musique. attention attention ah, de du ah, xaalisu lu mu ci liggéey. Mm. ñu fay ko ko weer bu dee. Ah. day dagan. da koy lekk mu rees ko. papaam lu mu ci liggéey. mu mu fay ko weer bu dee da koy lekk mu dagan ko. charia nee na leen ñoom ñaar mm. nañu fexe ba bu ñu lijjanti fu Youssou Ndour di jëlee xaalis. waaw intéressé wu leen. même kii jaay parce que bul jàpp ne Youssou Ndour alal ji mu am dafa araam bul jàpp lool yow alal ji nga am xamul fu mu jógee man alal ji ma am fi muy jógee bu ñu ko dee topp di ko topp di ko topp Sénégal mooy dëkk boo xam ni boo fi dee topp alal bu yàggee série yéen lépp lay araam loo waaye dafa am fu ñu mën tegg bam bi laaj ma mooy fan mooy yërmande yàlla wa rahmati wasiat suñu borom nee na yërmandeem dafa yaatu góor jigéen bi jox yaayam paasu màkk mu dem màkk mm-hmm. léegi dafa dafa araam ah araame góor jigéen dama lay wax góor jigéen waaw bi ñu ni góor jigéen ah, góor jigéen te mu jox yaayam mu la joxe xaalis war a ko lekk fu mu dëgg war a ko dëgg fu mu toog war a ko toog te yóbbu na yaayam màkk ci xaalis bi xaalis bi PMI bi ñu ne dafa araab te ki gagné PMI te yóbbu na yaayam màkk kon tam sare yenn saa yi de ndox de non non de sare da lay dimbali <laughs> ah? ah ah bambi waxoon naa la ko <laughs> ah, sare da lay dimbali attention sare yenn saa yi bu dugg ndox de asal non bu dugg foofu bambi <laughs> télé télé ngay télé di wax te dafa doy waar pied mi baaxul pied mi yóbbu yaay màkk. déggoo ma de. tabal juma bu mu góor jigéen baaxul góor jigéen yóbbu yaay màkk. kon xanaa juma yi dañ leen di màbb. ah góor jigéen tam ñu ngi tabal ah am na. xanaa kon juma yi Sénégal dañ leen màbb. am na de. ah moo tax l'islam wax ak yow dañ dégloon ñu wax xam-xam. ñu bañ a topp teel teel bi dafa ni la bul lijjanti fu fu ñu jëlee seen alal doom ji yëkkati alal yëkkati jox yaayam wala mu jox papa papaam na jël rek mën naa am cinq millions yoo xam ne businessman la Moodu mën na ma may 2 millions yi wala même 1 million yi lan moo ma leen ni kii moo la may li xamuñu fu xaalis bu jógee bu ñu ko lijjanti mais suñu amee preuve mu leer ñu ni xaalis bi fii la jógee nag charia leen a bul jël kon léegi yaa ngi dégg da ngay am aj aj ba day baax télé ba ci TFM ka cay liggéey lam cay liggéey ñu ko cay fay bu mu lijjanti fu Youssou Ndour jëlee xaalisam Oustaz yow di nga déglu musique man mi hmm. dama koy déglu ah pourquoi nga déglu tam xara noonu dañu nekk ci jamono joo xamante ni jamono jëfa tënk àdduna bi yëpp amul kenn kuy génn sa kër sa doo gis lu araam doo déglu lu araam. Hmm? maa la ko wax Sénégal la ñu ne. <laughs> léegi tax na ma daganal. ba bàyyi daal ba bàyyi daal ma naa la daganal. bàyyi daal dafa dagan. dama ne ndax loolu tax na ma naa la dafa dagan. bu may génn léegi di wàcc léegi ma déglu musique par force. non ko par force de. non par force dara par force tax may wax na vraiment si sa sago. mais ñoom ñëpp dama leen déglu tout. toog sa total musique dama leen déglu ñoom ñëpp laa la wax. ok amul ko ma ci ba. déggoo la Alioune Mbengue waxoon. am na loo ko ne waxee réew mi tas doomu yaay bul ko wax. jarul dégg mu tudd. moo ko wéyoo xamul lu mu tuddee la de eh, loolu ay. Eh, dama ne pourtant moo tax man la wax jooja dafa dafa haram. mais loolu dafa haram son son dafa haram nga wax sànq. dafa dagan. léegi sa boobu ay tabala wala ay tabala dafa dagan dafa dagan de. Ah. instrument dafa dagan. dafa boobu guitare amoon gars yi dañu ci dugal guitare amoon. kat boobu bu fekkoon guitare am. ak ah, ak mbiib nga foog gars yi dañu ci dugg pain pain pour magasin suul lay. mooy li ma la wax moo tax ma la contexte mooy araam loo musique contexte mooy araam loo football. wala kon tey ngaa ne oustaz te nga wax nga fi ñu lay wax non dégg nga te nga wax nga wax non je comprends pas dama bëgg lu jëm ci côté diine buñ ba mu sax man bi ngeen di werante ci diine ji yiw de waaw ma saf sàpp dañ ciy débat de waaw mais boo demee nag ba laaj ma waaw loolu leer na léegi ñoo si football bi football tam dafa am cas góor bi takk seen. waaw góor bi takk seen wax naa la. na ko bu boobaa wax football tam kanaal benn jaaro ko ko mën a daganal. Hmm? football koo ko daganal sport moo dagan mais football bi ñu def ñun. football sport bi ñu jàpp nii di ko def nii. gars yi di ci di ci xew di ci xew. parce que football dafa am contexte li ma la wax ni la. football bi dafa am yu ko wër. xam nga su dee sport. nga jël sa tennis sol ko jël sa baax giital ba ñaan football dañ ko doon def jël sa baa giital ba mu paas sa oom ndax awra góor ngay lijjanti rek coolu coolu li tax ñu naan dafa araam mooy fi awra góor bi ne dañ koy gis mooy oomam ba tuuti tuuti ci poojam ak tuuti ci oomam dañ koy gis mais bu dul loolu mën na continuer beneen bi mooy kii football di football ba waxtu julli jot wala ñu ni tàkkusaan jot na ñun ñëpp fii ñun ñëpp xam nañu ni coupe du monde bi mu amee Sénégal di football kenn ci ku fi lijjanti heure waaw ngay def émission ba julli jot ah, nga nga xam ne dañoo bàyyi def émission nag ñi nga xam ne dañoo bàyyi julli gi ñoo def émission nag asante gaara la ah. a bokk lépp rek <laughs> ñun nangoo bokk ah, lépp mënuñoo bañ a bokk ñun ay jigéen lañ de mënuñoo am gànt foofu yaa ngi dégg football dafa am détail bi Assane non seulement solin gi solin gi football bi kilote bi ngay sol ñu ñëpp xam nañ ko jigéen ñi góor ñi jaxasoo ci kaw tribune yaa ngi ñëw waaw maa ngi ñëw waaw lépp kay na ñu ne ñu koy fay ay trente kenn xamul ci ay milliards ay milliards waaw lan lay def waaw est-ce que loolu dagan na waaw est-ce que est-ce que. moo tax xaalis boo ko ñu ma problème en fait hmm. réew dañoo dem ba ci kanam c'est-à-dire doxalin yi dafa soppi diine ji. waaw ah. fa la xaar mu ñëw rek dégg accès gu ma. Ah. doxalin dafay soppi diine ji. Ah. wala diine ji moo leerul ci fànn yi ndax xam tax may ñëw fi nii. Mm-hmm. cest à que dëkk yi nga xam ne dañ leen réputé woo sa dëkku diine. Mm-hmm. dëkk dëkku diine ci àdduna bi bi laay wax. Mm-hmm. mais ki mais dañuy fubal waaw xam nga màgg dañoo aay woon jigéen ñi benn moment arabi Saoudite. man sax màgg dañoo aay woon jigéen ñi dem stade. mais léegi nañ jigéen ñi dem stade. mais fubal ñu ko gën a bëgg ñooñu ci lañ Uh-huh. ndax dañu ci Égypte la jógee. non ñi ko gën a bëgg loolu ci lañ bokk. waaw c'est-à-dire léegi est-ce que nga war a ñëw ci comportement yi. que bañ a dem ci discipline bi. waa léegi moo la benn affaire. waaw col gi de. wala a ber jigéen ñi ne waxtu julli jigéen ñi nañu sol góor ñi nañu sol boo demee fees voilà ñu xam moo fees boo demee est-ce que doomu yonent bi def lu araam dafa tax mu dagan déedéet daganu lu waru tax mu dagan parce que mu araamal buñ ci indi sax détail parce que buñ ci indee détail day indi ay poche jamono yonent bi doon nañu jamono Seydina Mohamed. waaw foo gisee football. wala nan la ñu ko mën a arable dafa amul ah. kan dafa bawul dara. Hmm, bawul dara il faut que muudu nga comprendre gis nga technologie bi ngay gis nii. l'islam bawul dara maa ngi koy wax rek démb. amul lu lislaam bàyyi. Hmm. diggante yent yàlla Moussa. communication bii am tey. Mous yent yàlla Moussa communication téléphonique bi am. Hmm. fi fi fi fi fi fi fi fi internet toll tey. mais yent yàlla Moussa publié na ko bu yàgg. fi xibaar di yóbbu di tollu tey fi xibaar toll mais nit nit nit nit publié wu ko ab picc ab picc moo ko publié picc boo xam ne ci ah, ci nguuru Souleymane la bokkoon muy xudu bi si la ko Balxiis ba muy seeti ci Balxiis Moussa foog ni moom. rek mu foog ni. Firaw na foog ni moom ko. Moussa Njibri waaw Firi laa na waaw waaw ñëw dellu indi ko xibaar. mais xoolal tey kon bu xibaar mu nga jógee Amérique tey nga yëg ko léegi-léegi. léegi mu la jaaxal alxuraan tudd na ko ci ab picc. mais Sénégal yi nag il faut ngeen toog di waxtaan ndax man xam naa oustaz am naa dégg naa benn oustaz ayut. Ah. waaye waaye nee na football moom boo solee comme football rek ba ba ba muur sa awra bu bañ a fekk mais bu bu fexeel ba bu waxtu julli jot sport sport nag laa la wax de uh-huh. dem defar sa yaram sport kese kay sa yaram émission day jot ñuy continuer di def yooyu ñu koy def gars yi teg seen bët nga xam ne ay carte xaalis ak jigéen ñi dafa daje dam yi bi nga xam ne suñu Sénégal nga xam ne paa yi ku ci retraité dem dem mais dafa araam damay xaalis la damay sànq dama dégg. xaalis amul damay amul moo du mu xaalis. waaw damay tëjee ko dama dégg sànq mu ni. ak yu jóg yow dama dégg sànq dama dégg sànq moo du wax ni. Oustaz Alioune Sall. waaw cigarette la ci cigarette. ci wàllu cigarette. waaw ak ci wàllu sàngara. ñaari wax na ci Modou. waaw man cigarette bi laa dégg bëgguma ko waxal lu mu waxul moo tax. waaw kay waaw cigarette na waaw waaw sàngara moom daa leer nañ ni dafa araam. cigarette waaw leeral bu sàngara boobu damay gis ay borom xam-xam. waaw ñu ne binduñu ko cigarette ñi ko bëggut a araamal ñoo jël décision ni duñ ko araamal waaye daal leer nañ ci alxuraan wala tulqu bi aydikum li tuhlaka yàlla nee na bu leen jël seen loxo di ko dugal foo xam ni boo ngeen toppee loolu dafay leen rey te cigarette ça tue am na wala amul hmm? dafa araam yéen bu leen toog fii di wax loolu. dañuy laajte dañuy laajte waxuñu dëgg. <laughs> cigarette dafa <laughs> araam. na leer cigarette daa araam. waaw gars yi ñoo fi nekk. mais dañ ko sib am ñaar dañ ko sib am ñaar dañ ko sib détail dafa araam mutlaqan xoola cigarette dafa araam ñu jël décision nag dégg alxuraan dégg aaya bi ma wax. xam nañ ñu ko topp mais oustaz yéen da nga ci dafa araam aay bi furtu la xam nga aay bi waaw vraiment andi ko masala yaa ngi dégg ah, beneen bi mooy sàngara buñ ci discuter sax fii ci kenn discuter wu ji de ah de di ñun naanu ñu ko di inna mal xamru wal maysir jàng ngeen ko non eggali ko ay xam nga inna mal xamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun min amali seytaani fajtanibu ala alaikum dafa xaraam ale oustaz lu ñuy lu ñuy raxtaan mak pon bi nag pon bi am na paay ko ah? mak pon mak pon lu gën a bon de toog ba mu neex la nga jël sa pon mak paay koy mak loolu am la nga am <laughs> de xaraam di attention makum pon nga ma laaj de Mohamed da ngi dee. déglu attention. moo waxoon déglu de. ma ko bon géem xool baax. même day yàq day yàq pour moom. looy jox mu lay reggee bu ko mënee musiba naa lépp loo xam ne da nga koy utiliser. mu lay mën a yàq sa yaram. waaw loolu dafa am. man li ma jaaxal la mais bon dama gis ay paa yu koy maq. bari na ko mën a wax dëgg ñu ngi dund dara dara dara tàq nag tàq. merci beaucoup Oustaz. loolu bëgg ma wax la ko. tëj na fi tëj yaa ngi wax suñu émission bi yëpp. merci beaucoup Oustaz toojati nga fi. beneen yoon dañu andi corona moom muy jël sa temps de parole. waaw mën na jël masala bi yow kese nga moom ko 30 minutes jëlee ñun suñu rubrique politique yooyu nga ñëw bokk ak ñun. waaw am nañ am nañ am nañ mbégte bu rëy a rëy man nag oustaz xam naa dama ko fi bàyyee ba beneen euh, vendredi. parce que pourquoi ñiy jaay sàngara ñu autoriser leen ñuy jaay sàngara te yàmbaatam gën a bon gën a araam euh, ñu ñu ñu koy ñu koy ñu ciy tëjaate ñu koy tëjaate loolu moom dama ko fii bàyyi rek waa loolu état la ba pare ñuy autoriser tam caga ji di leen jox carte yooyu tamit war nga cee ñëw waaw waaw ñaari point la waaw dinañ ci ñëw donc am nañ mbégte gu rëy rëy ci seen émission bu mag bi lee di jommet xam naa ne tey moom jommi ngeen ndax ne naa leen ko jommil ku ne doo fi toog mbaa nga ñuy seetaan tubaarkàlla tey moom émission bi Assane da koo dëbb ak oustaz di roube tey dañoo def tendance coalition ànd roube waaw kañ nag waaw kon nag léegi xam naa dañ leen indi dina leen neex ci seen xol ñu ngi jéggalu ñëpp lu ci jub rek ci boxam sunataala la li ci itam ci ñun la waaye dama nuyuwaale maa baax yaay coiffeur sàll ngaare lam toro bu di gédee borom fukki xayma juróom-ñaar ki nga xam ne bu sàllandikoo nee naa ko piste ko odd moo jaar ci maquillage bi jaar ci péré bi te dama sellal dama ko yombala gis nga te dama zirik maquillage bi et di ñaanal sama yaay booy ba jaan sàkkura yàlla dundal la barkee la lafal ci ak yaay mbooloo yépp ak yaay àddina yëpp di ñaan xalifa sama rakk bi yàlla nga gudd fan yàlla fa la cat ak bébé awaak Abdoulaye Goumbala euh, sëñ Fallou Goumbala ak Abdoulaye jàlloo ñu ngi leen jaajëfal baax a baax seen liggéey rafet na di wax ñi ñu doon seetaan nag jërëjëf euh, ak amal nañ leen nag li xam moo du njukkal ndax nag amuñ seen fay jël seen connexion wala taal seen rek jàkkaarloo ñun rek mbégte la ci ñun muy noonu lépp loo xam ne nag wax nañ ko fi muy dëng-dëng ñu ngi jéegalu te xam ne nit matul lépp loo xam ne wax nañ ko fi nag muy bànneex wala muy jub-jub yéen doo nga tax ñu di ko wax kon nag dañ leen dig daje ba beneen yoon ci yeneen numéro ak yeneen thème merci beaucoup The magic dikk te ci ma lay wax juróom-ñaari mbaam sëf la ren ndax lan alali àdduna dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di fóonante rek la yam amul leneen mais fóonante dafa garaaw bu garaawee nag ngeen ñi ngi miñ dong la bëgg siiw du dem bàmmeel ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi woon léegi maa ngi nii xaw fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw lii lan la nii do I